moom sa bopp moom sa alal yombal sa dundu ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show. Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD moo leen di may seen émission Taku Show. at ci kattanu yàlla ci seen télévision Walfadjri ak ci seen site bile di solution info TV ñu dellu siwaat ci kattanu yàlla nuyu leen téléspectateurs yi ak internet yi di leen ziar bu baax a baax di rafetlu ànd gi saa su nekk du lundi au jeudi la tey nag ci talaata ji dinañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat Omar Bun Xatab Gueye dina seq waxtaan lu jëm ci politique wala actualité politique bi euh, ak Serigne Modou Astou Mbacké ñu seq ak moom waxtaan euh, buñ ci noppee daal di jàll ci actualité du jour ànd ci ak ma jigéen Diop nag daal di dem ci victime du net son bi Diop mooy ki koy amal ñu ndar képp ko ak euh, côté comédie bi su Kambaay daanee moom la yëfam la moo ko moom ci kanam tuuti lay doon ñu ndar keppee ko. <laughs> Omar Bun Xataab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi bu baax ajaratu di la nuyu bu baax. Euh, di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di ziar ñëpp. di la nuyu tey képp nga indi quoi. waaw waaw eh. waaw <laughs> xam nga affaire dama koy bëgg di varier. doon la doon la tey képp suba beere gannaaw suba musóor. noonu la mi <laughs> ngi noonu kon di nuyu bu baax euh, maa jigéen di nuyu saa. Hmm. di nuyu sëñ Modou Assa Mbacké sunu xarit ñu ngi koy nuyu bu baax di wëllale Cheikh Bara Ndiaye. Hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak waa Touba yëpp euh, ñu ngi leen di ziar. Hmm. mu defoon fi nag émission bu neex. waaw boo xam ne macha allah euh, gëm naa ne ci la ko sax gars yi commencé xëccoo si <laughs> Modou Assa Mbacké kon incha allah ci kanam ñu waxtaanee actualité di fàttali ni yaa ngi ci Pastef ah. après après di ngi leeral. incha allah incha allah kon di nuyu Souka di nuyu ñëpp bu baax a baax di ziar ñëpp di nuyu nag waa Kër Massar. Mhm. rawatina maire Akara. maire Akara waaw maa ngi koy nuyu. parce que. Euh, <laughs> <laughs> mbaa di nga di fay. dañuy suivre Walfadjri. Mm. di ñu bàyyi xel bu baax a baax. Mm. di lakk di la mu doon wël réew yàgg. di lakk di la ah, jox tey falaa tey falaa ja. mbaa yaa ngi fay. waaw maa ngi fay. des fois maa ngi fay. mais des fois ma fay pare ñu jaay ma lu ëpp la ma joxe. du dégg waaw yooyu yëpp day am mais da danoo am message bu lii xam ne maire yoo xam ne ay akara la ñuy jaay di di foraatu. waaw mm-hmm. ah, kenn ne am yéene yi. Walfadjri li muy dund ñu bëgg a boole seen dërëm ak seen ñaar dërëm yónnee ko xam ne loolu yitte la ci kër gi ñu ne seen contribution Mm-hmm. loolu nag euh, bi nu ko waxee mu dollu sedd xol lool loolu tax tey man ni nuyoo bi moom faaw ma dugal leen ci. Mm-hmm. di leen ziar bu baax a baax kon ajaratu kaddu gaango mm-hmm. am na ku jóge tey sànjara Sandiara ay dara la tudd ndeysaan. nee na fajar la fa jóge ñëw rien que pour contribuer. nee na delluwaat nuyu leen nag yéen ñëpp nee na depuis euh, Sacré Cœur mi ngi mi ngi wax ay waxu Jules Junior dalay wax yu bari yoo xamante ni. yow ma fay liggéey sax soit xamoo ko wala wala sa xel nekku ci donc ñu ngi leen di remercier bu baax baax nuyu yaay Mamadou Moustapha. maa ngi lay fay ajaratu di la ziar bu baax a baax. Euh, di nuyu Omar nuyu Sanjogu ak euh, ganu Omar euh, sëñ bi Mbàkke maa ngi koy ziar bu baax a baax jaratu nag ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur ak internautes yu ñuy suivre. Mhm. dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm te koy ñaanal nag suñu sëriñ sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak weer. yàlla suñu borom defal ko jàmm defal ko njabootam yus ko si biir këram. du koy mhm. ñaanal nag mbooleem xalif yi ci biir réew mi yëpp ajaratu ci kanam tuuti daañu ñëw ànd ak yéen ci actualité du jour incha allah. tey lu xew. alors <laughs> du tey nag son excellence la ñuy <laughs> moom mi génnoon réew mi. d'accord ci kanam tuuti lay doon. alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar. Ajaa ñu ngi lay fay tey moom foo jaar yoon la waxal la saf. waaw di am mbégte tey moom doo dégg la naqar yow demal rek. <laughs> di am mbégte ak kontaan ci yow Ajaa di euh, dem ba Touba nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg te ànd ak wér waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat mbakke ñu koy ñaanal mbakke mu yàgg fi lool. te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu bu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm. amiin amiin di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax laa nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm Euh, di wax ni. Mhm. macha allah ñu ngi nuyu bu baax mama Dieng bu Fall kooku sunu mama la waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la di am ci moom mbégte kontante. Mhm. di ñaan Cheikh Baara Ndiaye fa mu ne mu génn ci jàmm ak salaam. di ko ñaan. ñi nga xamante ni bii ñooy kilifa yi ci réew mi. Mhm. ngir ñu bàyyil ñu seex Baara njaay mu daa dee dellu ci li nga xam ni mooy ab liggéeyam. donc loolu dafay am solo torop ñu ngi koy ñaan. Euh, ñu ngi ñaan voilà di nuyu bu baax Umar bun du am ci moom mbégte kontaante euh, di nuyu bu baax sëñ bi Mbàkke euh, keroog nag mere naa la bi ngay euh, def ak émission waajooju nga xam ne alxaari xamu ko am na ñoo xam ne jaruñu débatteral sax ci mbirum kii loolu moom dama ne woon sëñ bi fii moom war sa nekk sax di werante parce que ñi xam ñëpp xam nañ ni kii moom xamul dara nit la koo xam ni dafa ñëw ab marionnette la rek buy wax mais yaar rien ci bopp bi donc vraiment euh, lu après nag man dama la ca yow laa ci mere ah, loolu yow ma mere ko mais man yow laa ci mere quoi dama ne bon kii xamul dara sëñ bi soxlawul muy wax ak moom quoi vraiment di nuyu ma jigéen mm-hmm. di am ci moom mbégte kontaante di yu ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy teewlu xam nga yi dañoo jàngut ba noppi ñëw fekk ñu jàng di di nga taka jéem a werante di wax yoo xamante ne bi dara la ci xamul mm-hmm. rawatina ci diine ah. c'est grave booy politique nga politique mais boo duggee ci diine di wax loo xamut <laughs> loolu c'est grave quand même voilà ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp d'accord euh, sëñ Modou Ast Astou Mbacké ñu ngi lay nuyu amaat plaisir dalal la hmm, soxna euh, Ajaratu Bété boobu ñu ngi lay nuyu baax di nuyu Alxaaji Sanjoogu di nuyu Euh, na Omarul Xataab mi ñu ngi koy nuyu bu baax. Mhm. di nuyu itam euh, soxna maa jigéen mi. di nuyu kii nga xam ne xam naa bu ñu jugee dana ñëw wut muy sëñ soxna bu Jóob ak euh, soxna Suka Mbaay. Mhm. di nuyu nga xam ne ñu ngi ñu topp ci télé bii di Walfadjri boobu di solution TV. Mhm. di itam mbooleem ñoo xam ne ñu ngi seetaan fii ci biir réew mi ak bitim réew. waaw alaaji Sanjoogu xam naa loolu nga boo xoolee ci mujj wax ja naa ko ndax nee na ma bu ma jógee fii danañ danañ ma yedd ndax dem naa ba ci biir ma xam ne ma xam ne juum naa ndax juum nag mooy walaysa aleykum walaysa aleykum junaaxun fii ma axtatum bi walakin ma tahammadat xulubukum wa kaana allahu xafuru rahima te man jàngoon naa alquran ne ma maanaam ñu xamut moom bu ñu waxee lu ñu xamut nee leen waaw mooy way saa xaatabahumul jaahiluun xaalu salaaman mm-hmm. ma jàngoon ko waaye damaa jël aaya ba teg ne jafe leneen daa tax moom yeddaa nga jëf fekk ma ci waaye insha allahu taala lam yakun abada mm-hmm. waaw kañ <laughs> masha allah <laughs> comme kuy nga ci leçon rek euh, baax na mm. ay ci ñu jëli euh, looy di njàmbat <laughs> Amar kàddu gaango waaw sëñ Modou Assa Mbacke ñu koy jaajëfal bu baax euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan bi euh, njëkkee ko ci Cheikh Baara Ndiaye sa wëllëre la lan nga ñu ci mën a wax. waaw sëñ Baara de sama wëllëre defe naa yow loolu sax am na loo ci xam loo xam ni. Mhm. dem nañ fa maa dajee fa ay plusieurs fois. Mhm. man nag li ma def problème ci mbir mi mooy. Mhm. keroog bi ñu ko arrêté ci situation yi ñu ko arrêté man li ma ci gën a jaaxal mooy boobee jamono Cheikh Baara man dem naa gërëm. boo fa demee. ñu toog mu wuteeg man gis-gis ci dafa ni woon nañu def li ñuy wax euh, dialogue na Sonko wuy ji moom loolu la gëmoon parce que dialogue bi baax na man d'accord ak moom ci lool yi ndax dama ko ne jëmmi Sonko demal nga dialogue ma ne ko ci àdduna gisuma fenn fu ñu koy bañee waaye dafa day daa am ku woote dialogue koo xam ne moom saa su wootee dialogue la muy doy nit ñi ci dialogue mooy mhm. euh, maanaam wax leen wax la ko neex mhm. teg la ko neex keneen ku wax lu ko neexul mu dajji ko sànni fële su paree wéy ci nekkoon xam nga loolu du mhm. dialogue loolu mooy kaay leen jàppale ma ci image ne ñun ñu ngay dialogue waaye du tey man su ma paree la ma bëgg ci laay wéy te loolu defe naa dialogue yi fees yëpp bu ci ne rek mën nga lii moo taxoon ma di ko def te te te la tax muy dialogue yu ko gën a garaaw fop jaar na fi te amu ci soxla keroog bi muy tëj Karim Wade boobee defe naa ne ci lañ gënoon a soxla dialogue ci bu ñuy génne Karim Wade parce que bu dee génne da dañoo jaral dialogue ngir bañ coow defe naa bu tëj amutoon coow du am ñu génn Khalifa Sall dañuy dañ koy jubboon Abdoulaye Wade keroog bi mu wàccee ba Abdoulaye Wade gi defe naa bu jàllagoon. Mhm. daf lay waat bi Khalifa Sall amee problème ci justice bu jàllagoon. Mhm. defe naa kon duñ am problème mu dem di woo di di Masaalikul Jinaan naan dañuy dialogue fi et cetera kon nga xam ni. Mhm. waxtu bu mu war a dialoguer rek fekk mi ngi koy mën a kattanam ci jëfe ko ci mën am li mu bëgg doole ji lay jël teg. bu demee ba gàgg nag ci lay dialoguer waaye biir dialogue boobu itam ba tey maanaam jaaraat ci seen xel naxaat leen bu paree imposé waat leen dooleem. waaye benn dialogue bu Macky Sall di teg nga xam ne dialogue bii bu ko tegee maanaam intérêt Sénégal wala njëriñal Sénégal moo tax amut te ku ko xam ne na ma ko wax. loolu nag tax na.

yow mi ko jiitee tamit boo ci bëggee jàdd wala nga mooy ci ñoom dañ la fay teg seet leneen mhm. mooy moom bu fekkoon ne daa bëgg a indi li ñuy wax politique politicien maanaam waa def nii def naa bu ko xasee def mhm. ne mhm. mu wëy bi mu wël bi dik toog waxtaan ak Macky Sall ngir ay ngir ngir mu réglal ko ay problème loolu xam nga politique nangu na ko politique yi Sénégal bii moom nangu na ko xam nga mais politique bi Sonko woote moom nanguwut loolu nanguwut moom weex tey daana am benn homme politique boo xam ne day transmettre. Mhm. ci mën a transmettre ci li nga xamoon avant. Mhm. da nga daan yóbbaale say militants. Mhm. mais problème bi posé wu mooy mën ngaa transmettre doo yóbbaale militants yi bokk na ci euh, ko perte parce que ñoom li ñu xam rek mooy dañ la daan topp duñu la gisal dara mais réalité politique bi moo sensé moo tax bi mu demee dañ la yoon loolu sa gis la mais ñu suñu gis-gis mooy des moo tax gis yàlla son yi fa jaar moom perte na ko c'est-à-dire Sonko nit ñi jàppeeku ko lii hmm. la tax ñu jàppe ko lii mënuñoo nangul Idriss sekk lu ñu koy bañal mënuñu bañal Idriss Seck lu ñu koy nangul li mën a nekk rek mooy li wax ne ci laa nekk dem ba tey mën na ci mos a changé position hmm. xam naa ne métti na bu baax métti hmm. na mooy waxtu wu ne réseaux sociaux yi plateau télévision yi et cetera parekaat bi dara lu ñu ne ñu ngi ko teg ci sa di teg nga àndal di ray ay nit ñoo xam ne ci yow lañ bokk te ba tey ji duñu ci def benn enquête di tëj ay leaders yoo xam ne ci yow lañ bokk duñ ko teg fenn di rajo ay nit yoo xam ne ci yow lañ bokk duñ ko teg fenn lu ne lu ne na di affecté ay nit yoo metti na mm-hmm. boo demee ba ne la ne ñoom na neneen ñu xalaatee mën nañ ñu sonn nañ nañ dem noppalu ji waaye déedéet gis ko faral di wax mm. euh, euh, dafa am yonent yoo xam ne yàlla bi mu leen yónnee mm. dafa bokk ci li mu leen njëkk a tegal comme ay position dafa na leen mbir moom dana ma naa am mu jeex man naa am du jeex loolu yàlla ko daan wax man naa am mu jeex mooy yonent yàlla yaxyaa bi nekk ci situation di di woo gaay ñuy bañ di ko lor di ko def la ne xam nga problème fan nga fan la jeexee daa ba dugg ci garab ñu fekk ko bala ko garab ga xar xam nga dèjà kooku problème gis ngeen fa mu jeexee kon dèjà moom lijjanti kóot mm-hmm. yonent yàlla Muhammad bi ko yàlla yónnee bi yàlla ko ne dana jeex yonent bi di am problème ba bis bi mu jógee Taïf dafa nga jàngeen ci xilal Shahab mm-hmm. alaaji Mari Saad wax na ba mu demee Taïf la mu fa maa laa afoofu bii rus naa ko nettali kenn du ko dégg amul benn xisab taayif booy dem ci teer alhaaj malis di ko fekk mu ne bi mu demee taayif laa xaami na sufaha maa laa afoofu bii wasaaxu at ma wasaada dambul xudami mm-hmm. mu ne dajee na ak taayif ay yëfi dof yoo xam ne yëfi manque yoo xam ne yëfi ñàkk solo yoo xam ne man rus naa di ko nettali waaye daal mën naa la wax dara rek muy ku xool tànk ya moom deretal na ba deret jàng nga ko a

am na 40 ans door a gis naan pour nga xam ne situation situation yii nii man gis-gis ba ci am mooy jërul dialogue waaye sëñ Bara da doon dialogue bu fekkee nag li état bi bëgg ci moom mel ne mhm. ah, ku ko cible man damay damaa gëm ni Cheikh Bara ci situation yii ko jàppe ah, lañ ko tegal na ko moom lañ la jàppe ju jëfaan yooyu lañ ko ko toppe day lu yàgg ci moom loo xam ne nekk nag li ñuy wax leader d'opinion di wax xalaatam chaque jour lu nit def da nga koy bàyyi jàkkaarloo Cheikh Bara di ko seetaan ak ma vie yi la nit ñi topp di la seetaan fii Sénégal maanaam def naa ku judul Sonko d'abord ci Cheikh Bara mhm. te Cheikh Bara ni ngeen koy faral di waxee jàngul ay tubaab li mu jàng mooy suñ jàng bi kese mhm. li ko waral mooy wax jooju gis nga darul Cheikh Bara dafa am xam-xam wala dafa xam lu nit li muy wax nii ñi ku gën a xam ci réew mi mën noo mën nañoo doon ay milliers ay milliers de personnes mhm. waaye ñu am courage ak fitu ak dëggu taxaw di ko wax loolu moo loolu moo jafe ci nit ñi dèjà boo gisee ñu jël ku mel na Cheikh Bara wala ñeneen ñiy wax di leen déglu da nga xam nit ñi am nañ xam-xam comme moom xam nañ li muy wax bu fekkoon ne ràññewuñ xàmmewuñ ku ñu wax ñu topp la dina déglu waaye ginnaaw ba ñoom bu ñuy déglu dañuy dañuy tànn ñi ñuy déglu kon de sax xàmmee nañ kon kon tamit ñii ñoo féetewoo wax ñi féetewoo di leen déglu waaye ñi féetewoo wax di wax dëgg ak ñi féetewoo di déglu di dégg dëgg ñoo yem point d'égalité mm-hmm. loolu nag eh, ci la état bi jógi taal nañ otoom yàggul oto boo xam ne gis ngeen oto ba mm-hmm. oto bu seer mm-hmm. amul benn enquête bu sérieux bu ci def parce que bu ñu def benn enquête bu da nga ci gis léegi nag journaux yi ne ci keroog bi ñu taalee oto Cheikh Bara am na jën jëye ju gën a mag loolu fii Sénégal surtout yu bëri defuñ ci benn yu bëri am na waxuñ ci te keroog bi ñu ko arrêté dañ cee sawar ci wax ko génn sax maanaam euh, inculpation yi ñu teg ci kawam c'est inculpation ci kawam yëpp ñu génne ko day mel ni daal ñoom lan la ñu doon xaar mooy problème bu amee kër Cheikh Bara itteelu leen bu Cheikh Bara amee problème itteelu leen waaye su euh, su bu Cheikh Bara amee ay problème yoo xam ne da ko concerné ñu teg ko ko itteelu leen waaye bu fekkee Cheikh Bara daa am problème ak état itteel na leen ngir ñu gën mën a surxal Cheikh Bara te Cheikh Bara day ca jamono boobu man. Euh, am naa problème moom ba dem këram woo ko man ak moom ak yàlla. ba mu ñëw fekk damaa dem toog jotaay bayil ma ko ma gunge. ma tëye ci loxoom ba oto ma ne ko Cheikh Bara yow est-ce que jënduñu la man man ak moom ak yàlla ma ne ko est-ce sa discours bii distance man daf maa jaaxal trop jaaxal na ma keroog bi ñu ko jàppee daal bett na ma wax dëgg yàlla waaw te li ko teg itam ne moom moo ko def man luy tax ma gëm ne moo ko def man gisuma ko parce que dama ko gisut ci loolu yi mm-hmm. Omar bul Xataab Guèye bi xam na ma mm-hmm. parce que dañu fay dajalu baree bare mm-hmm. waaye Cheikh Baar ña may dimbale man bokkuma ca ña may jox alalam bokkuma ca ña may jox oto bokkuñu ca bokkuma ca ña may satisfaire seen seen mbirum àdduna bokkuma ca comprendre waaye man lii moom lu baax la xamal naa ko ko macha am na solo wax li nga xamante ni moom nga wax ne am na solo léegi bon coow li mi ngi ne mi ngi ne kur ci ki nga xamante ni kii mooy président Macky Sall Euh, ci li nga xamante ni bi euh, def na ko ca Ukraine maanaam demoon ngir ñu doxi ji jàmm dox jàmm jooju nga xamante parce que lijjanti ci wàllu Russie yi pour ñu def dialogue ak dëkk bi nga xam ni ñëpp dañ ne jàmm lañu fi soxla bu ñaari mbir yooyu noo jàngatee mbir maanaam président bokk na ci ñi nga xam ne mandaté nañ leen pour ñu dem wuti ji jàmm te jamono jooju ñun Sénégal jàmm rek la ñuy wër. waaw xam nga tey dégg nga leen ci surno ñu bind nii maanaam euh, Sénégal euh, waa ONU seen commission droits de l'homme bi ah félicité na Sénégal. xam nga félicité na waaw. waaw te ba pare ñun ñu àq ak yelleefu doomu Sénégal ñu mm. la tubaab yi fontoo. waaw gis nga bu ñuy seetaan ay France 24 di seetaan ay télévision yi ñuy jox ay information ñuy consommé ko ñuy consommé xam nga loolu du normal. Mm. gis nga tubaab yi. Mm. li xew suñu réew yi bu ci Macky am benn responsabilité 10 pour cent am nañ gis nga jëmmi Vladimir Poutine bi ñu dem toog ak ñoom ñuy wax toog ak ñoom mu xool leen moom xam na ne ñoom dañuy théâtre waaye dip xam na ne dañuy théâtre hmm. parce que diplomatiquement ñoom xam na ne ñoom amuñ accès amuñ dayo amuñ capacité ñëw naan dañuy régler mbir parce que mbir mi dafa leen a dépassé ndax ñoom hmm. dañoo bokk ci état yi ñu yilif hmm. te ñeneen yilif ñoom mbir yi bëgguñ mu jeex leen ngeen dem comédie boo defee ñi mel ne man nga xam ne xamuñ dara xool image bi ci kaw rek gis nañu lu dañuy régler ay problème te mm-hmm. problème yi du loolu mm-hmm. problème yi li mu doon rek mooy benn lu ñuy wax benn programme wala organisation bi wax nouvel ordre mondial bu mm-hmm. américain yi am boo xam ne dañ ko ànd ak européen yi ah. ñu gis ay nit jaar fee di opposé wu mooy ku mel ni Vladimir mais est-ce que jàppoon ni tamit mën nañoo tële comme ñi ci kaw dem nañ ba yàq mbir mi mais mu am ñenn ñoo xamante ni mën nañoo sul mbubbu médiateur pour fexe ah. comme que fi mu toll nii ñoom ñu mën a dem wax ak Poutine Poutine bu leen gisee daal di xam ni ñee seen yilif ña leen yilif léegi lii lañ bëgg loolu mën na. ubbi ay yeneen bu xam nga tubaab bi moom diplomatiquement ñoom. waaw mépp mbir mu yàq. waaw publiquement bu ñu ko bëggee defaraat. waaw ah, amuñ ci ay affaire dama ci am kersa mu ko defee damay ñàkk jombal dañ may xeebal naa ma ñoom gisee wuñ noonu de. Mm-hmm. ñoom mbir mu ñu bëgg a dugg dañ ciy duggee nu mu leen neexee. Mm-hmm. lu ñu bëgg a génne dañ ciy génne nu mu leen neexee. Mm-hmm. cest à mooy jëmmi Macky Sall lañ jëm sangub deram ci adduna bi ñoom. ndax situation yi am Sénégal ñoom gis nañu ko. comprendre nga. ñu bëgg jël mel na Macky Sall daal di ko yóbbu mu daal di ko yóbbu lu mel ne écran agressif mu wane ne moom nitu jàmm la loolu programme programme ñii ñii ne fii Sénégal la tubaab yi am fii bëgg occupé suñ pétrole suñ gaz yi lobby yi lobby yi programme ñooñu la xam nga li ma la moo mu dem yor ay ay butéel naan day ay nit yu faatu loolu ñun ñii ñun ñii mm-hmm. ñi nga xam man ku mel ne man xam ne ñun amuñuy xel ñun la ñuy waxal mm-hmm. waaye boo gisee journaux yi génn tey wax loolu yi ak loolee Macky Sall mooy bëgg fàttaloo nit ñi la ci waaye bëgg koo fàttali waa adduna bi la. Mm-hmm. adduna bi am na ci ñoo xam ne ñu sérieux lañ. ñu mel ni chinois yi. waaw c'est-à-dire ñu mel ni iranien yi. ñu mel ni ñu mel ni chinois yi ñu mel ni iranien ñu mm-hmm. mel ni russie yi. waaw ñooñu sérieux lañ par rapport ak ma jox la benn ma jox ma jox la benn misaal. Mm-hmm. xam nga russie yi ak euh, iranien yi ak chinois yi soo gisee ñu am problème ak européens yi am problème ak américains yi. ñoom la ñoo comprendre ñoom. ñun boo gisee ñun amuñu ñun benn problème ñun dañoo comprendre ñoom dañoo comprendre mooy ñoom tout le temps ñoom ñoom ñoom euh, par exemple euh, li ñu wax communiste yi rek. waaw ñoom dañoo am benn programme boo xam ne mooy. kenn du doon suñ kilifa kenn du ñu yilif kenn du doxal kenn du am benn doxalin politique suñ biir réew. Mhm. te Amérique am na problème boobu problème boobu mooy dem na ba ay élection jàll na sax Barack Obama def déclaration wane ni maanaam vote yi dafa am fraude ba dàq ay lu ma euh, dix diplomates russes mhm. ngir jàpp bi bu sawaay gagné bu Donald Trump gagné. Euh, grâce à maanaam Russie yooyu la. Mhm. programme yii nag ñu téye di ko déroulé lu mel ne réew yii ma la ko bañ. moo waral tout le temps ñoom dañuy taal ay guerre seen dëkk ngir ngir leen doole ngir seenu doxin xaw a yeex suñ ci demee nag ba nga xam ne egg nag ñun ñu am ay problème ñun ñu daal et cetera ñun ñoo koy jiit. nga gisee fanweer lu jege fanweeri ah, ko déggee loolu fi ne maanaam fi ne réaction yooyu. 30 personnes faatu nañ bàyyi ko fi dem di jaale ñeneen bu ko déggee day xam ne ñun comprendre luñ loolu loolu noonu ñun ñoo ko def débat bi tëddeewul noonu xam nga débat bi tëddee dëgg-dëgg hmm. mooy jëmi problème bii nii am Sénégal moom lañ bëgg a raxasal Sénégal Sénégal euh, jëmmi Macky Sall daram ci adduna bi tubaab bi ñun li ñuy jàpp ak li ñuy gis ak li ñuy bañ ak li ñuy neex ak li ñuy naqari itteelu leen dégg nga ñun ñun dee nañu ak dund nañ wopp nañu ak wopp ñoom loolu itteelu leen ñoom li leen itteel mooy adduna bi bu ñu def yenn intervention yi fii Sénégal moo xam ci médiatique la moo xam armement la et cetera ak lu mën a doon ci luy yàq daru Macky Sall wala loo xam ne moom da leen day yàq seen dar mm-hmm. loolu moo nekk seeni programme ñoom waaye ñun comme ñun nii ñu ko gëmee naan voilà nga am ay doom ñu faatu yow jaale leen nga am ay doom ñu faatu defoo ci ay tiwit loolu garaawul ci ñoom ñun nu mu demee rek garaawul ñun nu demee suñ côté garaawul ñoom li garaaw rek mooy tout le temps jëmmi ko fi raxantu état ko jóg bu ko sénégalais yi a jóg kon kon état bi li mu am comme li Sénégal am comme ay ressources état bi dana ko protéger mm-hmm. dana ko protéger te bu ngeen xoolee ñii dëkk ay Saraya dëkk ci dëkk yoo xam dafa am ay ressources minières yu boo xoolee bu ñu def bëgg jëlee suñu bëggee am yenn bañ guñ bañ sax da ngay gis attaque attaque yi leen di attaqué attaque yoo xam ne day day day violent ba nga xam ne doy na day mel daal bu ñu jógee ci benn euh, attaque boo xam ne tubaab yoo ko tax a jóg bu ñu am xalaat ci dara nu leen neex la ñuy daal ci kaw nit ñi nu leen neex la exploité la fa nekk dèjà ku kii bu fekkee ne en tant que sénégalais sénégalais moo noonu ressource bi ne fii sénégalais ko war a moom yow en tant état man a sàmm ressource minière bi sénégal am tey boo dikkee boo dal ci kaw nit ki doo xalaat ci dara ngir ressource boo xam ne France ko a dikk jël yóbbu ko loolu état du Sénégal du ko daal di. moom dafa mel ni euh, système bi lay xeex te yaa ngi koy laaj tout mu ni moom bokkul Pastef te à chaque fois su ma koy déglu si ay waxtaanam day jël position di défendre ki nga xamante ni nii moo du Ousmane Sonko lu waral loolu la. Ah, damaa gis position yi ma mm. la yoo xam ne man damaa gëm ne Ousmane Sonko man dama cay fekk parce que ay conviction lu mu yàgg gëm yàgg na sama ko gisee. Mm. man maay lii maa ngi ñaan yàlla bis boo xam ne même bu ñu fee fekk ak bu ñu fekkul yàlla na ko yàlla sotta bis avant man sama dund di sore wala sama dund di jaax nit nit toog na di wax lu mel noonu ma jóg appuyé ma jóg appuyé jëmmi programme mais du jëmmi moom balaa xam ne moom du jëmmi sonko ji na sonko bàyyi papa dana xam ne du jëmmi ji mbir mi du sonko bu sonkoo bawoon lii mu nekkee bëgg na ci leneen ci lii ma nekkoon man ci lay ne muy wéy di programme yi doon damay jëli am soxna maa jigéen mu ñëw di défendre procès boobu man toog ma fay de ko ginnaaw mu jut dem ci kanam dama koy def. mais projet bi léegi yow avant sonko di euh, di nekk. Mm. bon xam nga avant sonko di nekk politicien di samp kii boobu yaa ngi fi woon. Oh boobu yan idée nga gënoon a gëm ci ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon. booba man awuma ci yenn idée yoo xam ne gëmoon naa ko waaw man booba man man ki ma gën a gëmoon ki ma gënoon a gëm fi politique nga xam ne politique seen boo xam ne watal naa ko sax ay présidentielle man Talla Sylla la woon Talla Sylla musuma def politique direct boo xam ne damaa koo xam wala ma xam waaw parce que booba gisoon naa discours bi mu doon porté ah, avant xamoon ngeen avant bi mu jàkkaarloog Ablaye Wade ni mu daan doxee ak ni mu daan waxee gisoon ngeen ko xam nga après ah, ah, voilà ni mu doon jàkkaarloog Ablaye Wade ci moom état boobee 2007 moom laa voté loon hmm. xam nga demoon na candidat candidature 2007 moom laa voté loon parce que Tall si la nga voté. moom laa voté parce que boobu boobu discours bi mu amee woon. mais boobu amoon na ñeneen ñoo xamante ne bi ñu ngi fi woon yoo xamante ne bi Ibrahima euh, man ah. non ñoom Cheikh Bamba Dièye pourtant amoon nañ discours yooyu. waaw ah. ñoom ay ah. Cheikh Bamba Dièye. Hmm. te pourtant Cheikh Bamba Dièye ba léegi boo seetee discours am sa soppeeku de gis nga ko ci dialogue boobu moom bokk na ci ñi nga xam ni kaddu yi am solo yi ñuy wëndeel moom moo ko yëkkati ci kanamu président. waaw ah, xam nga kaddu gi. am na Tall si la. way moo la duggoon wala. non du way Talla Sylla du way Talla Sylla man li ma ci duggoon ah, ah. Ah. Mm-hmm. am na ci biir mbooloo mu na mm. ci biir wala ma xamul mbooloo moo nekk ci biir si Benno Siggil Sénégal. bañ dem moo tax. très bien mbooloo mu nekk xamul mbooloo mbooloom ñan la mbooloom. mais boo ne bokkul boo ko passé man damay jaaxal. mbootaay sëriñ daara yi demoon di samp arabisant xaw ma sëriñ daara yu Pastef yaa nga fa woon. waaw maa nga fa woon. te benn bis monsieur la la invité Walfadjri édition du soir nga ñëw si seen tur. waaw dem seen tur. mosuma ñëw fi Walfadjri ci tur waa Modab. maanaam Modab boo ko ji mooy aw ci carte boo xam ne ma cee adhéré wu. wala ma jor ci benn responsabilité ko doxal. kon woon. déedéet par exemple dañ maa invité woon. dañ maa dañ maa invité woon ma ah, dem xam nga man fi ne nii lenn dafa am. mooy nit ñi dañuy xool kuréel goo xam ne woote nañ dem ci àgg bokk ci kuréel tey ji foofa ngeen kii chrétien yi mënoon nañu koy def bu ñu wooyee ñun ñu dem man ma dem wuy ji dem ga ma ci dem ndax daa teg teral man ab chrétien la chrétien yi mën nañoo ñun jullit yi mën nañoo woote ñoom jullit ñoom chrétien yi dañuy dem màggal dañuy dem kii voilà est-ce que loolu teg teral ñoom ay jullit lañ loolu mbir la moo xam ne mm-hmm. te da nga ko seq ak ay nit waaw loola it neex la mm-hmm. nga gis nañu boo ci demee mën nga jaaree fi dara nga dem ca mais sëñ Modou Assane nee nga gëmoo dialogue gars yi neen barricade le 25 dañ koy dindi ji am na ñu ne tabaski bi te bu dee ni fi gars yi jàpp bàyyiwuñ ko nguur gi fi mu jàpp bàyyiwu ko fitna mën na am mais pour yow lan moo mën a indi jàmm bu boo gëmul dialogue waaw ah, man gëmuma jalo bi hmm. euh, te Sénégal li fi indi jàmm man gis naa lu yomb mooy mooy Macky Sall maanaam def la ñu waxante woon ak moom dañu wax ñun waxtaan ak dialogue ñun waxtaan nañ ba pare dialogue nañ ba pare maanaam def lañu dialogue woon lañ nanguwut hmm. dialogue weesuwut nga dem ba teg ay ay vote message ay référendum dañoo leen ñu def deux deux mandats tëj constitution bi loolu weesu na hmm. defuñ ko ba léegi ñu ne di naxante naan nañ dialogue def nañ fi ay dialogue et cetera et cetera lan lañ jógee ci benn dialogue ñu ne lii ci lañ ko dialogue baaxul ban pexe a Macky Sall na def la ñu waxante woon def la suñ constitution waxoon yam ci deux mandats yam ci deux mu bàyyi dem yi mu bëgg a téela duñu dem présidentiel di tànnal Sénégal ay candidat ki président teg ko ne dem bàyyi sénégalais yi moom seenum réew tànn seen i tànn loolu ci dialogue lañ koy lijjanti ko lijjanti ci dialogue jëru ko maam nañ toppal waaye rek bu mu lijjanti ko hmm. du dafa xëyoon rek dem ci assemblée wote loolu jërul jërul dialogue di yàq ay essence ak carburant. d'accord dama bëggoon jeexale Touba. waaw ah, Touba waaw bisimilah. Euh, voté du fa am élection politique ay nan ko Touba. Euh, ba ban ban xalaat nga nga ci am. Ah, ak yenn ci yi fi xew ci réew mi. boo gisee mi mbiri Walfadjri di mbiri Cheikh Bara di ñeneen nit ñi dem nañ Touba wax ko ci kanamu sëñ bi mais daf mel ne kilifa yi fi nekkoon ak kilifa gi bokkuñu parce que lu Touba mu a ñaan. fan lañ ci teg rek ñu doxee ko. Eh, lan lan mooy problème bi actuellement ba kilifa diine bu ñaanee dara nguur gi nguur gi dëgër boobu. Touba moom euh, ku dégg sëñ bi li mu wax ak ni mu ko waxee daf ne. Hmm. dem leen ngeen waxtaan ak ñu yor wàllum ba tey bu ñu mënee génne bureau de sax baax na du loolu wax waxtaan ba nag ku ko mel ne man. Hmm. Euh, su boobaa xam nga sëñ bi ndax dem naa ngeen waxtaan waxtaan ak man bu ñu ma ci woowee man wala ñu ci ku mel ne man dama leen di wax mooy. Hmm. c'est-à-dire euh, ñun am nañ am maire fii Touba te at mu jot dañuy fal maire bi ndax bu ñuy fal maire bi ñun dañuy def ay bureau de vote génn dem Mbàkke na ñun waa Touba dañuy falal ab maire. problème loolu xalaat loolu ndax xel muy xalaat mën na ko jàpp. Mm-hmm. ci ci loolu laa wax. aussi itam jëmmi voté. Mm. ak i vote moo fa tegoon maire bee fa nekk ne. Mm-hmm. en attendant malgré gagné wul majoritairement waaye daal dugal nañ ko ci système votant bi. Mm-hmm. ba jàll bu fekkee vote dafa baaxatul suñu waxtaanee man ñu boole ma ci kon suñ suñ supprimer dañuy dindi vote bi kon maire moom maire moom dañu koy supprimer parce que am nañu ko voteeloon kon vote baaxul c'est parce que vote baaxul wala mënee su ko defee Touba kon maire mënatul am Touba xam nga mi la wax baax beneen ba ci dolli bu ñu nee maanaam vote yi euh, mënatu la am biir tu mënatu la am biir parce que dañ koy yóbbu ca yóbbu ca Mbàkke Bawol man de am na ma fekk loo xam ne ñun saam gi ma dëkk man sama penc penc mi sëñ Baara Xureja ngeen may ma foofu sax ma dugaalee benn kii rek maanaam gis nga suñu réew mii ba tey ji am na ñoo xam naan amuñu ko ñun de amuñu ndoxam naan ñun waa saam sëñ baara xuraj amuñu ndoxum naan ah te wallaahi wa rabbil ndoxum naan amuñu ndoxum naan maanaam ndox waxuma la ndox yi sangoo fóot man moom ba yoo ma yoon rek ma fa dem am naa fa ñaari fan yoo xam ne mu sanguuma yu ma sangu te ñun ñu ngi digg Touba bokk ci Touba nag bokk ci njabootu maam ak sëñ Touba ñoo bokk nday ak baay ki jur ki jur sama baay ak ki jur sëñ Touba ñoo bokk ñoo bokk nday ak baay daf moo namp jox sëñ Touba am nañu fa pinc comprendre suñu digg ak suñu forage bi ñu simple matul 500 mètres. waaw comprendre nga te la ñu wër ñëpp ñu ngi am ndox ba mu des ñun. ñu ngi am ndox mu des ñun xool ay injustice boobu. pour pour nga xam ne ñun euh, li ñu bëgg dundalu fii ñun Sénégal. lii Touba ca kanam. Touba ca kanam ne nga fa parce que. ah euh, Touba ca kanam ci yooyu la ñuy dox di wala. waaw am naa daal en tout cas daal ñun problème bi moom am nañu ko. ah waaw waaw waaw. c'est très normal parce que dañuy dégg ay yu ñuy def. invité nañ leen fi ba tàyyi ñu wane fi ay vidéo yoo xamante ni seen ay réalisation la ak yeneen ak yeneen yu ñu def biir Touba problème assainissement wi yëpp kon kenn penc mu amul ndox c'est très normal ñun la ana waatu Touba ca kanam. waaw mooy li ma la wax rek man daal li ma li ma li ma mooy man li ma bëgg wax mooy ñun amuñu ndox te loolu dëgg la moom. ah kon waa Touba kanam nag dégg nañ ko. loolu loolu dëgg la amuñu aussi. Ah, ah mais mais mën nañ ci def ay jéego parce que nag yow ban développement la ñu bëgg waa Touba ñor waa Touba ñu ngi dugal xaalis leen ñor loolu mooy dëgg sax mm. ah, ban ah. développement lañ ñuy woo ñun Sénégal mm-hmm. ci adduna réew yi gën a deltu ginnaaw xam nga dafa am loo xam mooy démb damaa dem ci benn pharmacie ne ko jaay yore garab mu ne ma suñ si mën na ko yéen seen garab yi seer ma benn garab 2000 francs mën na ko yéen seen garab yi seer na mm-hmm. dégg nga mu ne ma waaw na ko ak lekk ak naan ak solo ak dëkkuwaay du war lu nekk li ñuy wax lex lex moo war a seer loolu loolu nécessité la ku ne da ko war a am mu jàppandi hmm. fii ama fii fii amaamika mais lan la ñu sol suñ bopp yi ba tey ñun ñu gëmal ci ñu ngi ci réew moo xam ne mi ngi mi ngi nii. Ah. sëñ ñu tëjee mm. ci état de droit lañ wax. Mm. ñu ngi ci état buy dox xawma la seen yooyu ñuy wax seen yooyu ñuy wax naan ñu ngi émergent eh, ñu ngi ci nangam te ñun amuñ ndox muñ naan. <laughs> doy na waar dégg nga. waaw fii Sénégal daal dañoo xam ne réew ñun yoruñu ko. Mm-hmm. yoruñu itam koom-koom buy dox wala économie buy dox mm-hmm. ay gars yu jàng di rouler ay R ñooy toog di ñu nax <laughs> loolu na comprendre leen ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf <laughs> jërëjëf sëñ Modou Astou Mbacké ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, di ko gërëm nag euh, ci xel mi ak xam-xam bu rafet ba mais aussi ak courage bi. Mm. ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ko wér yokk yow te nga ñaanal ñu bu baax bi ñuy door fii solution ñëwoon nga waaye gis na ni ñaan gee nga nangu ñaanaatal ñaan rek gën a jëm kanam rek dama egg ci Al Jazeera gën ko sut sax jërëjëf ajaratu kaddu gaa gi merci beaucoup Omar merci beaucoup également sunu invité muy Serigne Modou Astou Mbacké merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal moom xarit la ci kër gi ñu dem jëli actualité du jour <laughs> Souhaibou Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ajaratu. ma lay xaar pour nga toog nga nuyoo ngay mbëkk. may mbëkk ah man ma fu ma fekk am mbàkk mbàkk moom danaa mbëkk. <laughs> nuyu naa la waaw maa ngi lay fay bu baax di la ñaanal yàlla jàmm. amiin ñu di am mbégte bokkaat ak yéen jotaay bi. amiin sànq ñëw naa rési xool ma ni waa xale bi kan la. Ah. macha allah. ajaratu bi kan la macha allah sama papa El Hadj Babacar Mbengue heure bu ma gisee. bu ma gisee ma. waaw waaw am na benn vidéo lii dañ koy ah, sama doom ji ajaratu ajaratu ah, waaw waaw mu dama laa waroon ba boo pare damaa waroon na en nguufaan la rek yóbbu la Touba wàccee la ci digg pénc ma. <laughs> rek bàyyi la bàyyi bàyyi ñëwee ma sama coobare bopp. <laughs> non dama la fay sànni rek daw <laughs> nuyu xarit sëriñ Siriam sëriñ Abdourahmane Mbacké futur maire de Kër Massar maa ngi koy eh. nuyu sama rakk ju baax ji mi ngi nii macha na borom këram ñibbisee ak jàmm ak salaam incha dagg tey ci kanam tuuti ñu ñëw ci mbay Euh, Kouthia. Mbaye Kouthia. waaw après ak yi xewoon yëpp it am na lu xew ci mbiram. dafa am incha allah <laughs> ma jigéen loo indi actualité sànq junj nga ko. waaw ajaratu euh, dinañ waxtaanee nag son excellence euh, monsieur Macky Sall moom mi nga xamante ne nii nag génnoon na ni ngi koy junj léegi tout à l'heure ci coowal Russie ak Ukraine ginnaaw bu mu jugee ca njaal ma nag jaaroon na fële ca Portugal waaye nag dafa mel ni sénégalais yi nekk foofu noonu ajaratu yuuxoon nañ ko. ko fa yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci président de la république du Sénégal ngir doxalinam fii ci biir réew mi ni muy gouverner daal ñoom jàpp nañ ni teguwul ci yoon du yamul foofu kase waaye seetlu nañ ci yeneen dëkk yu mu demoon ci siège u euh, fële ca Nations Unies bu États-Unis foofu tamit loolu lañ ko fa def à Londres aussi euh, seetlu woon nañ ni euh, Sénégalais yu bëri génnoon nañ yuuxoo ko am na quelque extraits yi nga xamante ne ni jotoon nañ ko jël nañ dem xooli ko daal di dellusiwaat ñaa yaa toj yow li alal jar na lii. sàcc suñu 94 milliards ba pare am looy wax. sa yow yaay sañ a wax ñu génn génnal fii. saaga may tey danga saaga tournel bu dee góor na góor jigéen bu bon bi all the people is dying in the name of Macky Sall look at it's only children only children Sénégal yeneen gis tey Macky Sall lay ñëw accueillir fii nii Mame Mbaye Niang noonu day génn am lu muy wax leen neex dañoo sonn dinañ leen déglu de fii boo ko teg Sénégal da ku yëngu ñu tëj la ku yëngu ñu dóor la fii kenn du fi dóor jigéen Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur mi ngi noonu ajaratu mu mel ni nag son excellence <laughs> léegi amul fu muy dem rek du fa tase que ñoo xamante ne nii daañu génn yuuxoo ko ba fii ci Afrique du Sud sax bu fa demee dem ba mujj bi am na ay Sénégalais yu génnoon euh, def euh, lii nga gis ci vidéo yi nii même à Londres sax hôtel ba mu daloon dafa mujjee jóge ndax euh, Sénégalais yi fa nekkoon sonal ko lool ñu seetlu nekk ki nga xamante ne ni moo di Mame Mbaye Niang toppoon na ci mbir ya ba ñuy tudd sax mbirum 94 milliards yi baax mu mel ni njaal mi daal euh, ba mu jàllee Portugal euh, sénégalais yi génn nañ fa euh, wax yëkkati ay kàddu yoo xamante ne yu négatif la jëmale ko ci son excellence. amoo jàmm jàmm. Ah. boo gisee ñu naan boo ko bëggee danga koy yéene ñeneen ñi. Mhm. yow boo bëggee jàmm rek da nga koy yéene ñeneen ñi parce que boo xoolee li xew ci réew mi mooy expliquer la xew bitim réew mhm. mooy. jël këru jàmbur barricade ko ci loo xam ne yoon waxu ko fenn ministre de l'intérieur ñëw toog yayul kenn maanaam ci loo xam ne kenn xamul mu doon ay nit presque mat mille walla ñu dépassé cinq cent ràpp ci kaso bi attewuñ ci kenn lii nga def wax ma la leen jëñ am na mais da leen attewul ne lii lañu def hmm. ku bëgg yëngu ci réew mi ñu yëkkati yat ne da duma ay trente personnes lu ko jege faatu ci réew mi hmm. mais yooyu yëpp day mel ne dara xewul li benn góor nag da doon wax naan këpp reer góor ñi ba pare bëgg nalaw ba yandoor yeewu ndékk ci jàmm mm. yàlla may ko kenn pour man loolu moo dal suñu njiit yi mooy mën nu xañ jàmm fii mais duñ ko am feneen mooy buñ génnee bitim réew lépp li ñuy bañ a dégg ci réew mi bu demee dinañ ko dégg ay doomu Sénégal di leen ko wax te da ciy jàngat dellu ginnaaw bi ñu dellu ginnaaw ñun ci démocratie mooy réew yële da nga fay yuuxu président wax fa sa soxla wax li nga gëm wax li nga bëgg déggoo wax ji mi ngi naan leen fii du Sénégal. fii mm-hmm. li ngeen di bañ a kenn du fi dóor jigéen te li ngeen di bañ a dégg dina leen ko wax. Mm-hmm. mooy kon munoo xañ a jàmm ba pare di am jàmm. mënoo xañ a jàmm di am jàmm jàmm ji ñuy xañ nit ñi fi ñoom la ñuy dem fee ñu leen koy xañ kenn souhaité wu ko nag nga dem une institution wala un président de la république génn ñu koy yuuxoo loolu kenn souhaité ko mais du la première fois mu mm-hmm. mooy Abdou Diouf palais de Bourdon defoon nañ ko ko. Abdoulaye Wade maa ngi fàttaliku ñoom Souleymane Jules Diop aux États-Unis ci benn cérémonie bi fa amoon ñu ñëw yàq cérémonie bi te Abdoulaye Wade mi ngi fa te tey jii Macky dund na ko lu tax suñu jiitu réew yi lu waral bu nee ba seen mandat di jeex duñ xajati fenn lan leen liggéey pour mériter ça pour man am na loo xam ne buñ ko liggéeyantu réew buñ demee bitim réew da leen di tàcc ndaxte président Amérique du ñëw fii américain yi di ko yuuxu président France du ñëw fii français yi nekk Sénégal di ko yuuxu pourquoi ñoom buñ génnee ñu leen yuuxu feneen mooy jàmm ju ñu xañul xañ fii moo tax mun ñu ko am feneen. mais bu ñu mayeen jàmm fii gëm naa ne bu ñu demee fee am fa jàmm. <laughs> te dara umpeetul ndax euh, internet euh, ma euh, sooy bu mu mel ni ñaaxarañ doo mi ñu jox seen communication bi sax dañ ko mujjee boolewaale si yëf yi dégg na fa lu nekk. ah waaw mooy. ñaaxarañ mooy borom kii ba génnoon. <laughs> Ah, waaw waaw alaaj tudd ma loolu de. waaw dama ne saa yi laa wax. léegi màgg na wala. lu ma si man ma may ah. laaj. yàlla na ko yàlla dimbali. mu màgg. ndax dafa am solo te daa bokk ci liy mottali bokk na ci li ñuy tànnee imaam it ci la bokk incha allah. Euh, jaru ko woon lii ñu def président Sall jaru ko woon ma jigéen. waa jaru ko woon xam nga dangay ngay dégg ñu naan woor wàcc bu ñu duggee ci koor. Hmm. da ngay dégg ñu naan woor wàcc. mooy bis bi doo ko war a waa xam nga président Sall bu ko yàlla dimbaleeg jàmm yàlla na gudd fan lool nag. juin bi di euh, mais da leer ni la. Mm. dootul tabas korite ci euh, palais ba incha allah dootu fa tabaski euh, tam xarit ak ñëw dootu fa tam xarit màggal gii di ñëw it beneen président mooy dogal ak ci ni mel. kon jàpp naa ni bitim réew daal li ma leen di xelal ñoom. Mm. dañoo jub ay élection te nee na ñu ci bari ñoom dañuy yuuxu di ko jaarale ci suñu ay kàddu di wax ni ñoom boo sàggantul dañ leen di saboté ba duñu voté ñu ci bari ñoom amuñu këyit. ñii boo sàggantu duñu voté parce que dañ leen di saboté ndax jàpp nañu ni ànduñoo ak président Macky Sall léegi na man li ma bëggoon mooy rek seen communication ak seen i nañ ko gën a teg ci fexe ñu defar seen i këyit ñu mën a voté xam nga tey Macky Sall dictateur dictateur. mais parce que li tax ñuy génn mooy que ni ñoom nee nañ situation bi Sénégal nekk ñuy torturer Sénégalais yi ak jàpp yi ñuy jàpp ak yi ñuy def lu Omar tudd léegi nii looloo tax fu ñu ko gis rek il faut ñu manifester ñoom itam seen naka que ay sénégalais waaw loolu lu am solo la. Mm-hmm. lu am solo la mais dama bëgg ñu boole ci après ay yeneen i jéego yuy wane ni kat waa jii xam nga du nekk président du nekk candidat incha allah man loolu laa gëm. Mm. mais nañu teg ay actes yoo xam ni comme fi mën a teg wala comme ni kii mooy ci sama parti ñu fexe ñoom bu dee nañ nguur gi fi nekk gënalu leen ñu bokk ci ñi fiy teggi mais xam fii ñu toll tey combat man dama jàpp ni du ay dictateur Macky Sall jógeel fële defoo fi dara accord lu am solo pour nga wane sa naqar. Mm-hmm. mais nañu jéem a teg ay mbir yoo xam ne daal bu vote jotee. ñoom dinañ mën a voter pour jëlee fi li nga xam ne jàpp nañu ñeenti at wala juróomi at yi ñu génn dañu leen di bunduxatal dañu bunduxatal seen mbokk ak journaliste euh, ñeneen ñi fi nekk su fekkee jàpp nañ daal li fi nekk du dëgg mm. nañ koy te bàyyi daal defe naa daal jaratu ko fu mu ñëw bitim réew mm. nañ ko xàllal bàyyi ko mu jàll jaratul dictateur parce dictateur gi bu dee lu am la incha allah fii ak 6 mois dafay dem ak jàmm ànd ak sama yaay Mariam waaw macha allah xam nga bu njëkk ba. da nga daan gis président yi ñu daan toogaandu daawul nekk daanaka lu ci ëpp si président Sénégal parce que donte Omar expliqué na fi bu ñoom Souleymane Jules ak kii mais bareewutoon nii bii dafa jéggi dayoo. maanaam dafa mel ni léegi léegi ak tamit communication. tamit da ciy joué dafa gën a développé. léegi fi mu toll ni ko portigal defee dafa ko gis ci yeneen dëkk ñu def ko ku ci ne léegi da ngay préparer sa bos ne bu ñëwee euh, danaa ko def nii loolu nag li ko indi dafa am tamit ay mbir yu bari yoo xamante ni bi xew na euh, parce que am na loo xamante ni bi xew na fii ci biir réew mi li waa ji wayoon ne bu dut fii di fee mm. maanaam bu fekkee ne amuñu ko fii ñu am ko feneen lii parce que bu doon tey jii am na yu bari yoo xamante ne bi mi ngi am ci biir dëkk bi de pense que président Macky Sall kenn du ko yuuxu ci bitim réew am na noo xamante ni bi tey bu ko doxalee woon euh, ci biir réew kenn ko yuuxu ci bitim réew mais nag am na yu bari yoo xamante ni bi tey da gis ni ñi koy wax sax loolu lañ koy wax dañ ko mu ne ko fii du Sénégal maanaam fii dañu nekk ci réew moo xam ne léewu ah. mooy indi Sénégal. moo. maanaam ku toog di nga ngan ngan naan fii du Sénégal mën na laa indi Sénégal. <laughs> non non gars yi <laughs> yi am na xam ne bëgg nañ leen a indi mais mënuñu leen a ah, indi. bari na ñu fa nekkoon naan fii ah. ah. bari ñoo xamante eh, bëgg nañ leen a indi mais leen donc daal leneen li ëpp solo pour yenn yi di bañ ci àddina dafa am lu doole man c'est que état il faut ñu comprendre ni. du lépp la doole man euh, parce que gis nga firaaw na doole ji mu amoon gis nga biñ ko waxee na ko am na xale buy judd boo xamante ni mooy nasaxal sa nguur gi mm-hmm. ni yëf yi jaaree ba mu yar ko mu nekk ci biir këram ak lépp loolu dalay lay wan sunu boroom doole ji mu am épreuve bi mu jaarale yonent yàlla Muusaa nga xamante ni bi bañ ko sànnee ca kii ba rek waroon naa mën a faatu borom bi teete ko bu mu dugg ci biir kii maanaam dafa am yoo xam ne doole munu ko munu ko nit ki nag bu xàmmeewul bu jaawalee li doole mën parce que ñu bari dañuy wax ne état dafa fort état dafa mën lii dafa mën la lale boo toppee dooley état moo lay sànq te doole jooju day mujj yow lay mbugal parce que day am ñu bari ñu lay këm loo xamante ni bii tey nekkul mënul ne comprendre nit ki nag lu munta ne euh, teel cee génn moo mooy li gën parce que man dama seetlu doole doole état mu may Ousmane Sonko doole ji mu am bu toon ak doole état billaay Ousmane Sonko du am doole ji doole ji mu am doole ji doole état man gisatuma ko ci état mais dama koy gis ci Ousmane Sonko maanaam euh, jamono ji nga xamante ne bi ñi ngi xëcc doole ji nga xamante bi kii boo seetee ñi nga xamante bi ñoo gën a fës ci état di jaay doole ñoom la sénégalais yi gën a contre tey mm. comprendre nga. Mm. donc moo lay wan ne la dafa am foo xam ni li am solo mooy waxtaan tegaat mbir yi ci yoon parce que tey jii président ñii koy yuuxu nii yëpp ñooy ñi nga xam ni ñoo xeexoon fal ko président dafa gañewoon woon bi bi muy falu da ko gañe bu baax a baax a baax tey même diaspora bi président nemmeeku na leen ba tàyyi ñu koy dalal fu ne di ko tàccu mm. léegi bu demee ba ñi ko defoon loolu war na xoolaat doxalinam. te man jàpp naa ni bu xoolaatee doxalinam dina am yu bari yoo xamante ni bii war na dina ko soppi mm-hmm. jàpp naa ni yii ñuy def nii ay mbir la yoo xam nit ñi dañuy génne seen naqar mais bu ñu génnee seen naqar bul mer kilifa waroo mer ne def nañ ma lii lu tax ñuy def lii sanctionné déedéet mais da nga naan lii ñu ma def nan laa mën a def ba bu ëllëgee dootuñu ma ko def nga xool fi nga def ay njuumte ay erreur waaw mais ah non non weesu il n'est jamais trop tard de bien faire non non il de bien faire wóor na yàlla lépp fi xaj ah, lépp fi xaj juróom benn weer lépp ci la gis nga juróom benn weer juróom benn weer lu fi lu fi xaj non juróom benn weer yi lu fi xaj ah. comprendre nga am na loo xamante ni bii tey ah. gis nga son yi mm-hmm. sénégalais moo gën a muy man jàpp naa ni li tax ñuy wax ni sénégal dëkk bu pacifique lañ dëkk bu dal lañ mm. tey dëkk bu gaaw a fàtte lañ il mm-hmm. nga ko nenn rek billaay xoolal dañ lay muñ mën nañ la sax dem ba yërëm. Mhm. gis nga bu ñenn ñi di continuer di doxalee neen ñeneen ñeneen def eh arrête lu ngeen bëgg si donc il faut mu apaiser fexe xëcc ak dal ci li nga xamante ni bii mooy kii bi gis nga voilà gis nga xam li baax ah. yaa ngi nii di ndaw si moom it soriwul lool. soriwul la toll ni kii na taxawaayam bi mën na mën nga ko yuuxu ne ko dictateur. waaw waaw waaw li muy def nii mais ci beneen émission moo ne moo jalgati de. Mm-hmm. moom mi moo ne moo jalgati de ma wax li mu def dama ne moom moo jalgati di wuyu téléphone. doo dafa audio. non non dafa dafa ko wuyu coupé waat non man non xam ñàkkuma respecté. da ngaa wax waaw non non moom laa la noonu de victime di net bi victime bi. Ah. moo ma doon insister di woo te jàngul comme man. <laughs> su ma ko bindee du kii ma ma audio ko ma ne ko maa ngi ci émission mais warul. nangul nangul ni warul non maa ngi tuub comme. kii moo la moo la weer. mais balaa ngay terminer. maa ngi tuub ñaaxarañ doo mi yore porté ma Macky Sall dañoo ko <laughs> insulté foofu euh, euh, victime la ci dañ ko cee boole dañ ko cee ñambaas rek moom xam nga ñàkk lañ loo amul lu muy dogal ak lu mu dul dogal xam nga nit kuy filmer rek ku ñu fay mu dem di liggéey liggéey du dégg kooku kooku kooku dañ ko cee ñambaasaale rek <laughs> euh, patabaale ko ci biir waaye wax dëgg fa yàlla ñaamam wax dëgg fa yàlla amul ku muy wax def leen ngeen def amul ku muy wax ngeen moom bañ na ko sax ba moom AKA la nekk AKA xaw ma lan la <laughs> ñaa ñaa de defut dara vraiment eh. waaw donc xam naa mais dañoo bere président ku ànd ak moom ah, moom nga koy laaj bar xaw moo koy wax moom moo daal en tout cas AKA yor xaw ma ñaata million nee xaalisam ku ku muuma parce que moom day may xaalisam ku koy nett ñaa ah <laughs> daal en tout ah. ngi ci Ndiabo. Ndiabo mi ngi comédie mi def li muy def loolu daal. bon ñooñu dañ koo mere rek mais xam naa ni euh, kii yee ko dalaale. xam nga ko nu pour ah, xam naa euh, yi nga jot xam nga boo meree. même bu fekkee ni lii ñu def nii biti réew bu doon Sénégal la leneen fekk leen si. Mm-hmm. dañuy wane eh, yeneen seen yeneen réew yi ni ñu développé rek. Mm-hmm. ndaw si wax na ko fii du Sénégal ku wax ngeen jàpp ko wala nangam ak nangam foofu dañu respecté droits humains mm-hmm. donc seen droit la te ku mer da nga koy wane. ca lala yoon may nga def ko man amu ci problème. ñaa ñaa li Sa Ndiogou wax day liggéey day liggéey peut-être liggéey bi muy liggéeyal président dem nañ ba nu merewaale ko ci mm-hmm. loolu la rek d'accord waaw mais ñaa liggéeyam lay def day daan dooleem bàyyi jaambur aka <laughs> parce que li lay wax dana jaar jaar jaar kuy liggéey la gis nga jaar boo seetaanee vidéo fii doo fa gis yuuxu de. doo fa gis lépp dindi. aka ah, da koy dagg aka ay yu ah néew ñu direct leen ci cinéma am. non non ñaar du wane wu non gars yi doon filmé ñu doon manifester. non non mais ñaar dañuy direct leen ci cinéma non affaire bi kii day coupé. ah day enregistré. non yow ñaar te. ah paasam. Ah, ah. doo xam li xew. déedéet yow ma jigéen. yow lan moo tax kon ma jigéen yow demoo jëli ji eh, image yi ñaar filmé indi ko. non non <laughs> kii kon daa waroon dem jëli ji image ñaar fi ñaan moom amul droit jël bu ñaaw parce que ñaaw communication lay def. day fay day communication di eh, fayeeku. Eh, eh. kon kii doo ko jàppale ci loolu ñun lan la ñu fay ba ñuy teg ay vidéo. <laughs> ñaaw communication day fayeeku quoi pour day <laughs> liggéeyoo. mu <laughs> ngi noonu aja aja xatu bi la ñu indi woon tey ci actualité du week-end bi euh, di leen jox dig daje rek suba ak jàmm incha allah. actualité actualité lan nga wax. tey avec alaaji alaaji dara alaaji kenn deful. maa ko gën a contre waaye tey moom deful waxul. actualité du ah mu ngi la actualité du jour. ah d' accord. chamboulé rek chamboulé kon de wax l'actualité mais yow di yaa ngi koy bëgg tàmm nag mi ngi bëgg yàgg nag yow tamit bu ko def échappatoire. ay mi ngi noonu ñu dem ànd ak partenaires yi dellusiwaat. seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneen yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul la solution juddoo garab yi bon ak naxaate jeex. say facture moo ci gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee jot xaalis bu gaaw te wóor kapay la waaw waaw kapay de egsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la eh kapay daal mi moo wóor li ko ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw kapay suñu gan gi egsi na kaay kaay kapay ma kaay kapay ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt ñaata lañu ci Sénégal. ñaata góor ak ñaata jigéen ñoo am fii ci suñum réew. ci lan la yëngu seen njàng fan la toll. ñaata mag ak ñaata ndaw noo fi nekk. juróomeelu recensement général di lim buy tax ñu xam ñaata doomu aadama ñooy yeewoo fii ci Sénégal ak seen dëkkuwaay mooy tax ñu mën cee tontu fukki fan ak juróom ci weeru mai bay fukki fan ak ñeent ci weeru juin 2023 lu toll ci weer ak ñaari junni ak genn wàllu agent recenseur ñu jël leen fii ci Sénégal tàggat leen ci liggéey bi ni mel dinañ wër réew mi dem fépp ci Sénégal ñu leen di ñaan ngeen dalal leen ak jàmm waxtaan ak ñoom te tontu ci xibaar yi leen di laaj mbir mi lee ñu koy amal fukki at bu nekk ci Afrique ci réewum Afrique yépp dana tax ñu mën a xam ñaata nit ñooy yeewoo fii ci senegaal ñaata ndaw lañu ñaata jigéen lañu walla góor xam seeni dëkkuwaay ak ci yan anam lañuy dunde xibaar yi ak tontu yi ngeen di joxe dana tax ñu mën a xam yan jubluwaay ak yan taxawaay lañu war a am ci lépp lu jëm ci mbirum wér yaram njàng bi alam gi ak tawféexu askan bi ba dara du ëpp loxo lim nañ mooy bokk na remercier waa régie waaye remercier également sunuy partenaire dooree ko ci ñi nga xamante moo di KP KP KP ma KP ñu ah ci ko am koy KP rek KP ko ah. macha allah KP doomu ko moom mu nekk loo xamante ni bii boo cay envoyé xaalis doo ca bëgg a ñu lay dagg fare gauche fare droite naan la lii ak laak lële KP daa neex joxal ka ngay jox la nga koy jox mu encaissé ko na mu koy encaissé. Mhm. moytul tàngal bi balaa ngay assassiné sa bopp bu dee da ngaa bëgg xaru fii doo fi xaru akkat <laughs> <laughs> ak solution. <laughs> boutique solution en face Walfadjri la nekk di yëngatu ci garab yi nga xamante ni mooy garab yi cosaan sénégalais yi ñoo ko waxal seen bopp nee nañ garab yi macha allah waaye amul garabu fatt coraxaan dañ <laughs> boo fi coraxaanee sa tàngal boobu booy boo xam ni di nga lonku sa bopp kii di macc tàngal ba mu mujj la kii dafa mel ni nag léegi daw liggéey bi da nga cee bëgg a boole assassiné sa bopp. ANSD macha allah di wax maire yeeg paa yi nañuy wax la nga xamante bi noonu la yëf yi demee te nañ leen di dalal gan ñi buñ ñëwee ci kër yi nee nañ wax tata tafa dal dugg si leen ñu daal dee dugg si toog waxtaan jàmm daal dee am ca la nga xamante ni bi mooy mbir yi noonu la yëf yi war a tëddee ak. ak su Kambaay. Baye Daane ñu ngi lay nuyu di la ziar saa mu ne la ndaw liggéey bi loo ci bëgg boole assisté sa bopp. soo rey sama bopp. <laughs> nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi saxoo di seen télévision mag bi de. Mm-hmm. Euh, mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix dama ci solution. TV waaw benn la rek. ah benn la juumoo de ah. nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy bàyyi xel. di nuyu waa France li ngay lamsal lan la. Boubacar di nuyu waa Missira. di nuyu waa ah. Missira ak waa Tambacounda. di ñaanal jàmm. ah yéen waa Missira. Ah. voilà di leen ñaanal jàmm. Boubacar mi daal yow sa xel dem. na fu neex. allo <laughs> Missira. ay waaw Boubacar mi ngi bëti Boubacar dem na fu neex. Tamba waaw waaw waaw. Mhm. Mhm. tuddee nañ fa sama maam. macha allah école Adja Aïda Mbaye. Mhm. démb na fa toog ba ca kanam kanam. di fa nuyu nag sama mag Aïda Mboup maa ngi lay nuyu bu baax foofu lay ca Tamba ay ca ñu dem jëli victime du net. sooy bu nga ne mbay lan. tey mbay Kouthia la ñu jël. xam nga depuis mbiru Kouthia bi ma mee ba léegi dafa dafa am ñu bëri ñoo xam ne gisatuma leen woon maa ngi leen di gis yaa ngi fàtte ki ñoon wax lëx-lëx xaw ma lax-lax mooy jamono yi naan batar batar Kouthia am na benn waaye bu naa àndal wala lax buus waaw gis naa ñu bëri ñoo xam ne daal ay ñeneen moom nag moo ci gën a ñaaw làmmiñ waaw moo ci gën a ñaaw làmmiñ waaw lax buus moom maa ko doon kon lax lax la eh, lax lax lax lax la la lax luux la wax li mu wax lax lu waxal waaw non dama dafa bëri non sérieux xam nga man Kouthia kii xam na li may wax Kouthia ba may nekk ci benn rajo fii nii hmm. dañ daan mbëkkanti hmm. boobu maa ko daan attaqué mu naan wax batar batar mu naan ko bàyyil sa batar batar yi ngay wax ak abu Bilal boobu waa ji la doon àndal ki may wax mais tey bi affaire yi amee dafa mel ni ñoom ñëpp dañoo activé wu. ci ma lay wax nag moo ci gën a ñaaw lu muy wax aw làmmiñ waaw wax na ba wax ni moom gis na vidéo ku caabum simmeekoo di def nangam ak nangam. ba ni yëpp dinañ ko tasaare. muy ak loo xam ne xaw ma iñaan la xaw ma loo jàppaloon nit ki la xaw ma lan la. da nga daan na ànd ak Kouthia di liggéey. ma nga foon moo doon moo doon joué rôle naar bi. ok xam léegi. beneen bi damaa gént démb. géntoo Kouthia enregistré waaye teguñu ko. maa ngi laaj nag lu tax teguñu ko dama koo gént nag kenn waxuma ko. géntoo fenn. dama ko gént ku caa enregistré na démb émission waaye émission bi dawut dama koo gént enregistré na. de information kenn waxuma ko nag waaye man gént naa ku caa démb enregistré na euh, ku caa soow waaye lu tax jàllul daal maa ngi koy laaj ci ay bi ma yeewoo laaj naa ko waa TFM lu tax ku caa émission bi jàllul démb mbay nag nee na dañ koo naroon a yóbbu ci yoon. ndax nee na bi affaire yi dafa génn jël défense wax ci Kouthia lu rafet mm. donte ne moom ci biir audio yi dégg na ci turam moom it ñu am luñ ko wax mais téewul wax na ci Kouthia lu rafet mm-hmm. am nu mu waxee daal ba ay pelent fekk ko ci génnaat na nag après ñu dem xool yi wala déglu ku Kouthia li mu wax ñu dellu si waat parce que gis naa retour yi si may def interview yi démb déglu ma woon audio yëpp déglu ma ko woon yëpp après suite bi laa xam xam nga waaw déglu yëpp ci laa jot nag ay jot naa si ay menaces jot naa si ay retour ba jot naa si plainte waaw démb si guddi surtout woon xam nga man damaa bokk si réew mi su ma bokkul woon si réew mi sama kër dañ may fekk rek yóbbu ma parce que dama see wax lu xaw ëpp ndekete te bàyyiwu ma si woon xel d'accord waaw léegi nag si wax jooju deux une wax jooju lañ si la si xale bu jigéen profité dugal pelante man damaa yee 3 heures 2 heures 1 heure laa laa laa jët def naa dañu ma laa jët convocation ñu ñu kii boobu waaw. d'accord euh, lu kii bi euh, capitaine bi sax capitaine bi rek moo ma doon jël si. yëkkatil micro bi tuuti. capitaine bi maa doon jël si démb. Mm-hmm. si laa ne euh, si lañu lijjantee lijjantee lijjantee di ba ñu ne ma il faut nga defaat ma ne xaaral ma. li ma si leerul woon ma defaraat ko dama waxe xol quoi parce que loolu kuñ ko defoon man damaa mën sama nit waaw dama mën sama nit sama nit kenn ko laal jot naa si ay ay coup de fil yëpp ñi naan ay man la commanda diw man la commande man la kii diw man la kii diw lépp maa ko si jot mhm. mais damaa ànd ak sama tekk rek ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw man si réew mi laa dëkk waaw bi may wax foog laa waxee xaw ma woon xaw ma woon information yi xaw ma woon xam nga dama meroon quoi su loolu weesoo nag jigéen la comprendre na gën a na jéggal na su nekkee Kouthia da ko tooñoon tooñ bu yàgg ah na arrêté ojo yi comprendre nga te jéggale te xam ne doomu jullit la xam nga nañ nañ baale Sénégal nañuy jéggale nañuy baale voilà mi ngi noonu Sénégal nañuy jéggale baale kooku mooy mbay mhm. mbay nag Omar di benn farceur laa ko tuddee nekk nit koo xam ne nit ku maanaam saf xorom la ci communication du du du mer day dajeeg nit sax di ko interview mu saaga ko wala mu xas ko mais téewul day continuer li muy def am benn méthode bu mu génne ci Sénégal moo ko fi amagum dem def interview daje woon naag saa njóogu mii ba doon ko wax yu baree bari ba koy tooñ naan ko da ngay nogg tool faji rek temps yi yaa nanga mag yaa ngi nang yu baree bari ba saa naan ko yow xam nga mbay saytaane nga xam nga yooyu yëpp c'est la première fois nit def interview ñu naan ko saytaane nga ak jaxasekatu kër ga mu encaissé loolu waaw te da koy jàll du dagg dara du censuré ko yow jaxasekatu nit nga ak lu ne wax nga ko mais mais démb da ngay firnde nit ku caaku njabootoon la maanaam ñi mu doon liggéeyandool ñëpp ci année yi passé ñi ngi génn kii nag moo ci laaj gis ko ci jël défense faral ko wax lu ëpp ba naroon cee dem kaso muy mbay ku caa. waaw <laughs> mbay lambar ah. waaw lambar. mbay lambar euh, xam ne tey jii mm, mbiri Kouthia li ci yéeme mooy ñu bari moo jàpp ne Kouthia moo leen tooñ. Mm. mais ki génnee audio yi moo leen tooñ. waaw. waaw parce que Kouthia bi muy wax kenn àndul nag ki li mu wax mais ci cadre privé la ko waxoon jàppoon na day yem ci nopp ki mu doon waxal kase mhm. léegi kii mu doon waxal mu indi tey jii coow li ak fi mu egg yëpp. Mhm. parce que bu ojee génnul woon. Mhm. du am. léegi nag nee nañ mooy suñ jabar bi yore ay ñetti téléphone waaw mbay mii moo ko wax dem ci interview loolu mbay la rek. Hmm? ah déet wax na dëgg. Ah, affaire ñetti téléphone lu ko sa jabar du yaree. <laughs> yeneen yi lu mu koy doyee. waaw ah, ah. waaw <laughs> yooyu yëpp commentaire la commentaire la parce que bu mbir amee ku ne day génn wax. mbay nag euh, li naan il faut avouer et à moitié pardonner. Hmm. maanaam wax na juum na jégalu na. Euh, wax na lu ëpp parce que mbir yi Kouthia nit ku ne mun na ci waxee émotion parce que fi mu jaare Kouthia te mbay ci ginnaaw am na jamono neexawul woon ak Kouthia hmm. mais di nga àddina euh, reconnaissance. dafa baax tubaab bi dañ ne dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs. Mm-hmm. parce que boo xoolee ñu naan. Mm-hmm. nattu ba wala fi neen du tuddul nattu natt la. Mm-hmm. maanaam bu la ko suñu borom tegee day natt ñi ngay àndal. day natt ñi ngay àndal fa lan la féete ak fa lan la toll. waaw parce que bu dee neex doo xam réellement ñun ñu la bëgg da dem ba àdduna bi jàpp ni sax yow bu asamaan doon wàcc yow nga teeku ak say loxo. mais boo amee yenn natt yi nag ci la yu bari di feeñ. parce tey bu do nit ñaar moo mën a am mooy face A ak face B. Mhm. nit ku la tooñ tey mës na la jariñ démb. Mhm. waaye des fois li mu la euh, jariñoon da koy muñee li mu la tooñ tey maanaam bànneex yi ngeen daan am. Mhm. di ko partager di ko savourer bànneex yooyu da nga koy jëndee li mu la tooñ tey. boo peesee ñaar yi rek mën nga jéggale. du ñàkk ni ñii ñëpp tey amoon na benn compte boo xam ne seqoon nañ ko ak ki doon liggéeyal di Kouthia mais lam leen defal mu ëpp loolu. Mhm. mooy jëlee leen ci lëndëm indi leen ci leer teg leen ci tele ba nu xam leen ba mën a jariñu ci leneen. Mhm. te pourtant bu buñ ko jëndee bis bi ñuy njëkk a ñëw ci Kouthia di ut liggéey lu ut liggéey dafa garaaw. di nga sukk di nga raam di nga nangu sax loo waroon a bañ. Mhm. yooyu yëpp nga nangu ko ba bis ñëw nga mën a demal sa bopp. ka tax nga egg foofu tey nekk ci nattu ngay sulli la ñaawoon ci moom démb loolu moom du gor. du gor te nag àddina bi booy leble leble lu baax rek. parce que tamit ku Kouthia tey moo nekk situation bi de mais ëllëg du anjuree lu mat a seet la ñun ñëpp lii mën nañu arrivé kon euh, kenn du bànneexu ci naxaru jàmbur waxoon naa ko démb kenn du bànneexu ci naxaru jàmbur Kouthia actuellement soxlu ko yedd mais ku yërëm la ku yërëm la mi ngi noonu suka mbay waroon na fee toog sax tey fii waaye biñ jokkoo ak yu bëri yu mu nekk tax na mu ni ma euh, daal du ma mën a ñëw waaye nangam ak nangam ak nangam wax na ci yu bëri nag ak it saaga yi koy saaga moom mu ni farceur la day foo day ambiance bi muy jëlal Kouthia défense parewul woon pour euh, euh, di wax kenn lu ñaaw mais ay plainte mujj na ko cee fekk. Euh, sooy bu gis nga jëlal ni défense dafa yàgg ci àdduna. Mhm. jëlal nit défense. waaw nit koo xam da ngeen a nekkoon. bokk ngeen daan liggéey. Mhm. Euh, des fois mu doon sa kilifa. Mhm. des fois ngoo xam ne sax da ngeen a bokk di liggéey. Mhm. wala koo xam ne moom moo la jiitu ci liggéey bi. loolu jëlal ko défense dafa yàgg. nee naa la keroog benn jour maa ngi lay wax ni rek euh, mooy bi fii élage euh, bi kay amee problème ak Yékini. waaw damaa jëloon défense di saytaan yi nee naa yee yaay. Ah. waaw dama doon saytaan. ñun la bu ci wax déedéet en direct laa bu ñu. Ah, alors ak saytaan la woon eh, waaw. damaa ah. ñëwoon parce que waaw parce que damaa ñëwoon doon fexeel ba lii ba dal ak sa euh, kii Yékini sa yoon nekku ci bu ci wax. ma xam ni moom mun na kaa moom mun naa rek lay fam. nga noppi ca ma noppi ca te te après dafa rek la wu. donc li ma man li ma gis mooy ñoom ñëpp ñu doon ñu doon wax dem ci Kouthia. duñ hmm. ko teewaloon la. dañ ko teewaloon waaw duñ ko téewaloon la. Hmm. ndax après la lépp génn. Hmm. muy lëx la moom dégg naa ko. mu ne gis na vidéo yoo xam ne dina génn. merci beaucoup. kon donc tey bu may ànd ak Omar Gueye. di wax ak moom di wax ak Omar Gueye Omar Gueye am samay vidéo hmm. mu bàyyi ba ma am problème mu génne ko kon ça veut dire que kooku musuma bëgg waaw kon ça veut dire que dama doon ànd ak rek par ànd ak yow hmm. par hasard nii rek pour nga jàppale ma ma fay siiw ñoom ñëpp nag voilà ñoom ñëpp a génn voilà man damay doon gis de dem bi ma ko gisee ñoom ñëpp dama tiit parce que ku ne rek am am nga foo ànd ak moom hmm. ndax ku ne ba ngay ñëw ci moom mënoo dara dangaa ñëw mu jox la benn talent nga ànd ak moom ci loolu wala mu ñëw ni la mun la defal lii man maa ngi nii ne par musical li daan mënuma ko mu mosuma ko mën dama ñëwoon doon wax ni ko tak kii moom fi indoon stade ci biir a ma bëggoon a ras maas ni am xaalis <laughs> loolu defuma ko ñu ñëw boole maag saa njoogu doon fi nekk rek la ñuy wax ñu waaw ñu jox ma nappaat musical nappaat ma ko mais mais dama daf may wax ni ma sukkaa ah. voilà dañ ne danaan ma sukkaa defal lii defal lii mbéy gi émission laa njëkkoon a commencé ak kii ak kii ki ci des nu mu tudd ah, ah pas ki ci des mm-hmm. fi am euh, Cheikh Amar daa ne Cheikh Amar laay njëkkati ku nekk sa star ma ne man mi naa dem seet ñoom moom Diouf ak kii toog xaar daal dama kii dafa bëgg a rey dëkk bi te boobu hmm. effectivement loolu ma tax la ñëw mais bi ñu ma joxee ne pat damaa ñëw ba tey nag ci loolu la ñuy dox hmm. danaa ma defal lii defal lii hmm. defal lii ma def ci ma def loolu dama doon raas mbaas mais bu waaw ma nekk secrétaire général solution kuy def dara rek ci man ngay jàll kon donc ba tey kon tey bu ñu ma gisoon rek ma <laughs> secrétaire général léegi fi mu ne bu ma woon rek commencé nag naan saa ñoogu Euh, ah pointé nga bi nga xëy seetee na ku yow yaa ni ma woon dellu secrétaire général. ku ko fal kay loolu laa ko bëgg a xam. moom mii la man moo ne ma dellu waaw moo ne ma dellu woo bétti ku invité bu nu am dee ko woo te loolu. <laughs> boobu léegi mosoo ko def. loolu defal ma ko mais gis nga gis nga son yi ku la jàng ku la jàngal baax ku la defal ni la waxal lii. Mm-hmm. del def lii. di la ko wax. Mm-hmm. nga tourné ndax ku ñëw ci Kouthia rek. wax dëgg yàlla. mënoo woon dara da nga ñëw rek ci moom mu liggéey ak yow ngeen dem ba ci biir soit seytaane nit ñi da doo doy waar mhm. dan naan la yaa ko gën a ay mhm. yaa ko gën a def lii yow koy li nga mën nii mënoo ko fekk hors de loolu nit ki da nga war a même bu même bu dee lu metti mhm. même bu dee loo xam dund ngeen ko yéen ñaar lu metti war a koo wax nit ki da nga suturaal nit bu ko defee yàlla suturaal la Adja mbay de moom moo ci génn gum comme ku défendre caa waaye ay plainte ya ko fa fekk sax génnaat na jéggulu moom it woyof mm-hmm. nee na dama doon kaf rek la ma waxoon dara amu ci Hmm. plainte yaat mujjul kii nee na nag Amina na jéggal ñëpp Pape Cheikh Diallo na jéggal ñëpp ñeneen nañ jéggal ñëpp bu kenn plainte <laughs> man xam nga mbay man ay waxam du ko du ko téye bu baax ah, parce que xam naa ni ah, non li muy kaf ak di ko foo moo ëpp li mbay di sérieux man boo man mosuma gis mbay mu sérieux à part bërki démb bi ojo yi génne ma gis ko muy défendre Kouthia waaw te te te day jóge fii di ko kaalaan la doon def da doon jóge fii taxaw fee jóg fee en fait def na ci ni mu ko ni mu ko mënee gis nga sony bu Diop. Euh, Sénégal gi lu ne xew na fi lu ne nag laa la wax. loo xamante ni da nga naan kii bu xëyee sénégalais yi ba ko. Mhm. tey jii ñamu daloon ñoo nga ci seen i liggéey ñii ñoo ngay def la ñuy war a def dellu ci seen i activité ku sañoon nag lii du la dal. Mhm. ndax lii xaw yi suturel la te te am na nooy demee boo doon benn ci nit ñi da ngay nekk genn wàll liibar. Mhm. dafa am loo xamante ni xajul ci gor. xajul ci gor man loolu laa wax nit nag. bu tey jii man saa njoogu mii wala keneen ak keneen wala ñun ñii di nekk ñëpp ni ma koy defee ni ma bu amoon ni ma koy defee defe naa bu amoon la ma ko keneen di defale mhm. parce que tey jii bu ma amoon problème wala yu mel nii kii ma di nga di nga wax sa akulaay taala boo toogee ci tele bi la nga xam ci man. Mhm. ak même bu dee lii dañ naan la betee ko wax wala nangam di nga ni bett na ma ci betti wala nangam na parce que doo ànd ak nit di xool ci moom lu ñaaw wala di xalaat ci moom lu ñaaw wala boog nga wax yàlla rek nit lii xamee ma ko betti te mosuma ko dégg ci détails yi gis nga gis nga mbay euh, xëy na wax na wax bu ëpp nit ñi plainte ko ci wala dara nañ ko jégal parce que mbay damay ñaan rek ñu jéggal ko ci plant yi parce que mbay ku ne xam na ko ku ne gis na ni waa dafay man li muy li mu dul sérieux moo ëpp li muy sérieux mm-hmm. donc mi ngi noonu nañ ko nañ ko nañ ko jéggal li mu wax rek dafa mën nitam. d'accord hmm. dafa mën nitam. Hmm. alaaji noo gisee mbir yi mbay de ay plante mujj kii waaye nag def na vidéo neen na daal mu ngi jégalu. <laughs> waaw mbay mbay daa daal la. Hmm. mbay moom euh, yàlla dogal na daje nañ benn bis ñu ngi daje Kaolack ci kii ba. waaw mbay da lay defal interview forcé waaw <laughs> te ba waxut bu jaxase la ak sénégalais d'abord da daan bëri teg teg la kii bi faalewut loo koy wax. <laughs> boo bajee sénégalais yi après daal ne non saa yi dafa soof. maanaam dalay képp quoi mbay dalay dalay bu duggee ci espace am ba mu ne la tay kii bi ba ne la moom démarré na. waaw mbay bi ñu toogee noonu mi ngi ci téléphone jékki-jékki rek daal di ba ah, commencé. interview ba démarré na. mais li ak xew nii. Mm-hmm. Euh, xam nga man damay wax ne. Euh, borom coow yi nañu teey borom parce damay ragal ñoom it seen ojo teer ci marché bi. Hmm. maanaam ñoom ñi ñëpp tey ku ci ne vocal nga fenn di wax ci Kouthia lu ñaaw parce que ni ñuy génnee nii rek te am na ñu seen seeni ojo ñoo xam ne mën nañoo xëy rek ne ko bëcc ci marché bi nañu tey parce que mën na nekk guerre des audios <laughs> parce que am na ñoo xamante ne bi mën na ni ñuy dalee ci Kouthia mën na naqari ay nit ñoo xam ne yoroon nañ seeni audio ñoom ñii parce que seetlu leen benn affaire dañoo jékki-jékki rek benn wax di daw ñëpp ne Kouthia dafa siis ñoom ñi ñëpp te ñu bari jaar nañ ci moom hmm. wax jooju lu ko génne Kouthia moom xam nga demut fenn ne damaa siis ñan mais ay nit ñu mu nekkaloon ñoom ñoo jékki-jékki rek wax loolu muy aw ku avancé waaw comme avancé mu bàyyi ku avancé mu kal la ku kii mu loolu la mais ku avancé cela veut dire que émission baa ngi avancé wala déedéet bu émission bi avancé émission Kouthia la léegi ban intére la am pour émission bi di avancé mu am leneen est-ce que nekkul ni ñoom ñooy ñëw di am neneen nu ñu gisee bëgg a def leneen ngir jéggi ko ah, xam nga pareen saay loolu day am maanaam nga ñëw nekk ci loxo yi nit jekki-jekki mu am leneen loo xamante ni bii day xew xam nga ñun ñu nekk ci bërëbu liggéeykaay bét yi lu mel noonu a chaque fois xam nañ ci dara mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw nga nekk ci loxo yi da ngay nekk ak nit. nga xeeb ay loxoom. nga xeeb ay loxoom dem ca yeneeni i loxo. waaw dégg naa parfois sax nit ki yëg ni dem nga ci yeneen loxo parce que parents yi ñu ci bari dañuy def jaarukaay. maanaam ñoom seen objectif du yow. mais yaa leen di dugal. mais léegi dañ lay bëgg a jéggi. dégg naa dégg boo leen bëggee jéggi nag. dañuy doxale léegi nag mën nga indi fristration ci ki nga xam ne moo la fa indi. dugal la fa mën na am yu mel noonu xam nga am na ñu bari ñoo xamante ne bi jóge nañ ci Kouthia ci ñiy wax nii ñoo xam ne jóge nañ ci Kouthia pour ñëw fii ci man. ah oui ah am na <laughs> sax boo tuddoo am na ñoo xam ñëwoon pour liggéey jóge nañ ci Kouthia <laughs> non yoruma audio rek envoyé ma audio quoi parce que am na ñoo xamante ne bi ñëw nañu fii ci man am na ñoo xam ne jaar nañ sax par Oustaz Assane ñëw jaar fa Oustaz ne ma diw nii kërëb kërëb ma laa am ñoo xam ñëw nañ ci man non waxuma la sax ay jigéen ak góor ak et cetera mhm. mais loolu man soo ma mos wax ne ma ci diw laa jógee bon am na ñoo xam ne xamoon naa leen ak diw quoi mais dama am na loo xam ne du ma ko def quoi du ma ko nangu quand même. ah xanaa liggéeyoo. ndax kañ damay liggéey mais c'est que. liggéey dañ koy seetlu c'est que pareen saa yi xam nga mën a. dañuy def euh, concurrent boo xam ne concurrence bu loyal. loyal la quoi. <laughs> Ah, fen la comprendre la concurrence bu concurrence bu kii la kenn ku nekk yaa ngi xëcc pour bu waxtu bi jotee nga. waaw ëppale téléspectateur. Mm-hmm. waaye nag animosité amu ci. maanaam euh, soxaranteeg yooyu amu ci quoi vraiment jàpp naa ni man tamit ni ma xamante ni noonu laa mel ci moom noonu la mel ci man daal. Mm-hmm. te it euh, loolu am na lu koy wane quoi am na yoo xamante ni bi yeneen yoo xamante ni mi ngi koy wane. Mm-hmm. léegi ñi nga xamante ni bi xam a pareen saa yi ñoom yi ñuy wax ni hmm. lu ñu daan faral di wax la mais daawul nekk ci kaw hmm. tey dañu gis ku caa nekk ci benn situation ñoom ñëpp ñu riir nag wutali ko ne nañu ko noyé nañ ko sacrifier benn yoon. am na sax ku ku génn. Ah. Ah. donc ku ne ku ne mën na wax am na. mais ah, mais lu ne lu ne mën nañ mais li xew nii rek doy na quoi. lu ne non non lu ne mën mais c'est que loolu tey ñoom ci loolu la ñu nekk quoi am na ñoo xam ni tey ci loolu la ñu nekk. pour jee <laughs> nañ ko gën a sacrifier nañ ko déstabiliser nañ ko nasaxal am na ñoo xamante ni bi fi mu nekkoon léegi nag ci ngay xam ne yow pareen saa yi mm-hmm. àddina mais gis nga lépp loo doon def ci mbaax mm-hmm. euh, même bu yu mel ni amee bu mu la soxla bu ëllëgee du ma di mais dina am lu mu def nag alaaji waaw ah, mais c'est que mën ngaa xool groupe boo xam ne bu ñu matee cent personnes nga am problème quatre-vingt-quinze yëpp génn di la enfoncer mais sant la Ah, ah mais c'est que ñi lay tey ngay soog a xam ni. tey nga koy soog a xam quoi. Hmm? tey ngay soog a xam ni. Euh, ñi la doon avancé. mais alaaji teraanga Omar daf ko wax gis nga teraanga dafa am solo maanaam. nga mas a ñëw ci bërëb di fa wut liggéey. Mm. nit ki ñëw taxawula donte ni sax xëccul sa loxo dugal la. mais mu taxawu la. il faut ñëw mu am problème. xam nga nag man man ni ma jàppee nag man ni ma jàpp sooy moom sooy man ni ma jàppee ni man ni ma jàppee wut liggéey. Mm-hmm. man ni ma jàppee wut liggéey man dama jàpp ni bu fekkente ni diw mi lii ma koy jox mérité wu ko wax dëgg fa yàlla ma la ko. du ma la ko jox du ma la ko jox quoi mm-hmm. parce que. damay wax ne kii daal gëwuma ni lii mën mën na mais ku la may loxo mais su ma gëmee ni diw mën na ko nag man dama jàpp ni man maa lay tarbiyu pour nga ñëw mhm. pour ñu ànd liggéey waaw mais kooku nag après ngeen xëy ëllëg problème am waaw mais kooku au lieu que nga jàppale ko nga koy gën a suuxal xam nga xam nga ñoom ñoom ñooñu ñoom ñooñu ñoom ñoom ñooñu li leen war lenn la mooy am na loo xamante ni bi tey dal na ci nit koo xamante ni bi nga xool ne ah man de diw defal na ma dal xam nga man coow li coow li mhm. ak lu ma mën a wax ci àddina damay wax ne Walfadjri bii de sama dugg fi ci Alioune Ndiaye la jaar. comprendre man ci Thiamas. voilà te foo toog da nga koy wax. Thiamas moomu. Mhm. dugg seen mi ngi jaar ci man. ci yow waaw. parce que li ko indi ci lamin Samba laa àndaloon. waaw te Thiamas wallaahi ba mooy kii dañoo toog di waxtaan. ma dégg mhm. ci moom ay wax wakkale yoo xam ni. ma xam ni kii am na ay kii quoi mu ne ma dafa bëgg a ñëw pour def ñoo saf Sénégal maa saf Sénégal. waaw waaw. Mhm. bi mu ma waxee tamit promettre ma ko yàlla dogal Sidy Lamine woo ma daal di ne ma man de damaa bëgg sàpp diggin bi ma am ku ma ko jox. Mhm. parce que daal bu ba nëgën ni eh, kii wul ndax xam nga koo xamante ni ma ne ko am na ku ma xam de ku ñuy wax te boobu mosumaa déglu caamaas mu animé mais bi ñu toogee di waxtaan. Mhm. ma damaa dégg ci caa ay termes yoo xam ne. termes yu neex. Mhm. mu ne ma euh, kii ko. woo ko comprendre Lamine Samba moo ma jox numéro Thiama mm-hmm. Mm-hmm. moom la moo ma jox moom Lamine Samba topp ma loo koy doyee ma ne ko du xaw <laughs> ma loo koy doyee <laughs> looy laaj ci lu ma koy doyee comprendre loolu loo koy ma ko waaye dimbali ma ngaa ma loo <laughs> loo koy doyee mm-hmm. ba après bi ñu ko wooyee mu ñëw def une semaine si leen ma dajeeg moom ci escalier mu ne ma sa waajaan fay toj Thiama jamono boobu téléphone bi day sonné ku rédaction bi ku téléphoné. Ablaye Lam bu yëkkati allo yëkkati caalaay mu wow sa ko seen seen. Père Lam ah, dox. Ah. dox xamante ne eh, ay waay eh, moom ngay dégg. Mhm. mu extraordinaire xam nga loolu. Mhm. mbégte mi ma ci am. macha allah boo yëkkati proposé naa nit ay waay ba léegi. naa nit. Euh, am ci satisfaction parce que tey bu doon proposé naa koo xam ne ki doxut day looy waar yàlla dogalaat na euh, kii euh, Kouthia bi mu fiy jógee mhm. ñu am ñoo xam ni proposé woon nañ leen pour ñu ñëw remplacer Kouthia ñu laaj ma ko mhm. ñu ma waxoon ma ne leen ah ñooñ de wax dëgg fa yàlla mënuñoo remplacer Kouthia mhm. te tamit bi may wax loolu sama aqulaay taala léegi si ne man lan ngay xaar ma ne ko ñu fexe waat Kouthia ñëwaat ci place am parce que ñii ñu ne noonu nañu essayé mais biñ ñu tamit doxut la nga xam ne ma la wax donc am naa après raison ci li nga xamante ni mooy kii mhm. te tamit bi may wax waxuma pour contre ki nga xam ne moom la ñuy wax mais damaa gis ni munu ko. waaw ah, munu ko remplacer ko xamoon naa ni bu li muy def ak li ku caa di def bokkul. léegi def na ñaata ñaata at. léegi audio yi audio yi génn. yàggul audio yi génn son yi bu. nga xamante ne bi tey ku neen ciy profité ñi ciy profité yàgg nañoo wax. yaa ngi dégg mais peut-être dañ daan wax ci suuf. Mm-hmm. na damay ragal nag ñu xëy ñoom it seen ojo wax ñu daan wax wax ju ñaaw Kouthia. Mm-hmm. ne bàcc ci mbedd bu boobaa euh, dinañ xam mbir yi. waaw wala bu ñu mënta ñàkk wax ñu rafetal sax. non quand am na loo xam ni jafe mais loolu lu sincère nag du lu kese lu sincère lu génne day am na ku ma am na ku ma ci gis kooku kooku am mbannakat la kooku taxawaay bu ñaaw la ci taxaw. kooku la moom mooy euh, kooku naan Kouthia moo torturé njaay ba mu dee ku wax benn waaye la mi ngi ci réseaux sociaux yi de des fois ma gis ko ci logo yi ah, wax yooyu wax wax kooku mbirum mooy waaju ñàkk fayda jooju di fecc rek foo ko fekk muy lëmbal ana góor ak euh, lëmbal man ku ca euh, Ndiaye sama cousin la par ah, nañ bàyyi wax yooyu baax ndeysaan mbirum dee. yàlla suñu borom rek. yàlla ko dëgg la suñu borom. wallaay kii dee nañ ko bàyyi mu noppaliku. wallaay te am na sax ay sëram ci ay sëram. loolu liggéey après normal. yaay ak doyen. Ah. voilà nekk ci leneen. mais moo choqué nit ñi parce que tamit mooy loolu daal. samay doom ndey ay rakk njaay lañu ay ca ñëw tëjee. mi ngi noonu yéen ñi nga xam ni nag yéen a def yu mel noonu yéen a ngi sacrifier seen bopp te yëgu leen ko ndax mm-hmm. alaaj mii ak ñeneen ak ñeneen ay réalisateur ay nit yu bëgg a liggéey ak ay comédien ñi ngi fi comédien guñ fi gis nag amul sutura damay ragal sa carrière fi lay jaare yàqu ndax ñii ñu gis nii tey ku crédible doole liggéey ak ñoom parce que da ngay xam ne ñi ay nit yu bon lañ ku la defar ba nga tollu fii tey nga baal ma ma tëjee fa dafa am ku ñuy wax Bruno Diatta mel na waaw nañ jàngale histoire am ci Sénégal mhm. maanaam homme d'état la woon dund na ba faatu kenn mës mu eh. génn benn secret ci état ak li mu fekk lépp Mhm. kon nag nañ jàngal xale yi ñooñu ñu xam ne daal ànd ànd la bu jeexee jeex na sutura. ayca Bruno yal na ko yàlla yërëm ayca ñu jaajëfal la bu baax a baax li nga indi amatina solo ñu jëli neppaat musical. ayca ñu bàyyi la ak say gan. Mbaye hmm? ñan ñooy say gan. Euh, ñu ngi am tey Ngañ Bawol Bawol en tant que expert. Hmm. ak El Hadj Mamoun Mbaye bari géwél Ngañ. nga nga day ñëw ci taw bi taw nawet bi nga xam ne Touba dafa kii rek ak ak Kaolack. Ah, waaw kii rek mu kii rek ak Kaolack. Mhm, Kaolack moom inondé la nga nuyu kii waaw jéegam miir la waaw naka def ñu ngi di fay. jéegam miir yàlla di am mbégte ak kontaante di am bu baax a baax di leen nuyu. di lu taay bi ci palaato bi. dégg nga am ñëw rek ngir joxe prévision mhm. météorologie. di nga am sur la sur la PPI. d'accord ngañ jërëjëf ngañ. ngañ euh, mhm. en tant que expert. Mhm. Euh, wax nawet bi leen wax ni dañu dafa dugg nii rek. Mhm. Euh, mu dem wucci wuccal Touba ñu inondé. am na foo xam ne yu bari yoo xam ne taalam. ñu jógee ti noonu mu defati loolu Kaolack. bi mu defee tamit loolu kaw Kaolack Kaolack gis nañ ni mu def ba dégg leen tax journal en tant que expert léegi nan nga def noonu waa ñaari niir yi ñoo indi taw yooyu ñaari que dafa am niir boo xam ne bi ñi ngi naan ko hmm? Kimil Sung niir Kimil Sung ah? niir Kimil <laughs> Sung niir lan dafa am niir niir Kimil Sung niir niir ban yi nga xam ni ñoom ñoo indi Euh, taw yi nga xam ni moom la taw fi mu toll nii. muy niir Kimilson euh, dafa am niir Kimilson. Ah, kumel moom moo taw ca Touba ti Kimilson. allo chinois ah. mooy niir ba nga xam ni. Mm-hmm. moo fa taw moo tax taw ba. Euh, mm-hmm. demeewul sax ni mu waroon a demee. waaye niir Kimilson waaye niir Kimilson mm-hmm. waaw parce que. Euh, bi muy taw dafa xaw a romb daanaka Touba waaye xam nga marché ocas foofu la xaw a euh, bàyyi lu bari. mais ngañ waaw xanaa bokkut ak niir bi nga xam ne dafa jóge Mauritanie. war a jóge Mali ñu bokk xeex. jigéen déeg ba. bokkut ak moom international danga may <laughs> ba ren boo fi toogee lii la lay daaw ba ren niir déeg ba yaa ngi koy que niir bi niiru Mauritanie bi da kenn xamul fu mu nekk ba tey. boobu moom la naan niir ay do sukka tërëndoo. waaw miir ay ru sukk. waaw boobu nga xamante ni bii moom. moom fan la nekk ba tey fresh woon mi ngi ci jaww ji waaye ba tey. teewagul bu ñëwee inondation dana am. incha allah moom ba Kër Masar moon ngeen ko. niir ay risques léegi niir Kim san bi moom. fan la jógee niir bi nga xamante ne bii moo sonal Kaolack nga xam ne inondation yi am fa. Mhm. pisim cim la. ah pisim cim. jooy xanaa ay chinois la niir cin la pichim cin waaw moom mooy bi nga xamante ni mm-hmm. di nga am eh, bi mu ñëwee ba fi nga xamante ni fii moom la ñuy wax di nga am eh, Kaolack ndangaan buy dugg Kaolack mm-hmm. foofa di nga am ca la ko beneen niir bu góor ba eh, attaqué ah pichim cin ah, ah da ko ah. violé da ko bu métti sax kan moo violé kan niir pichim cin lañ violé ca ca Kaolack yor métti. kii ak nii rek inondation. ah loolu parce que. ni mu ko defee baaxul. parce que taw bi ni mu wàccandoowee dafa brisque taw. Eh, gis nga léeg-léeg nga gis taw boo xam ne day ànd ak wicc wicc. loolu kuupu lu niil la. Ah, boobu préliminaire yi ndànk ndànk jekki jekki mu daal di saw taw ndànk. saw taw. saw <laughs> ay mu daanee taw ndànk taw professeur yi la mooy mooy wicc wiccal yi bu ko defee mu wicc wiccal tuuti après nga jekk jékki télé bi ne ci suuf ngeen di wax mu daanee def ndànk ndànk ndànk après mu jékki-jékki ratatatatatatatat après nga gis mu def ndànk ndànk ndànk léegi lii seen amul ci dara léegi satellite Babacar yaa ngi ci dara léegi léegi léegi expert ngañ léegi li waral mooy. Euh, nañ wax mu ñu neexee ndax lii seen. waaw nañ wax pare wuyu ma. Ah. ngañ ah. wuyu ma. léegi witti witti ba bu sew sew boobu. witti lay demee ci diggante bi mooy bëggante. ah. léeg-léeg nga jékki-jékki taw bu ne brrr. boobu lan la yàlla yooyu léegi witti witti mooy préliminaire yi witti witti mooy des waxtaan ba déggoo mooy xiin ànd ak ngelaw ngelaw lu seet li ñëw. Ah! daal di upp ñu ne taw bànq ngi xeeñ. ndeysaan boobu affaire yaa ngi xeeñ. waaw bu ko defee mu commencé wicc wicc ndànk. ndànk booba macha allah tàmbali na. wicc wicc wicc wicc couple niir bu ko defee nga xam ne mën naa def noonu guddi gi yëpp muy dem di taw di sebet ñuy dem di kii di liiwaat di kiiwaat di kiiwaat bu bët set. kiiwaat kiiwaat may na. dikkiwaat dikkiwaat dikkiwaat. Ah. ok eh, dem leen rek. yaa ngi fi amul seen la lan moo waral rek foofu di taw te Ndakaaru moom. kuy sëñ Modou Anta. ganam gi la la jaawale. nga daa amoon gan léegi tudd sëñ Modou Anta. sama gan gi moom moom mi ngi ci lu ay njàmb. <laughs> waaw kii lu ko dal yow. xanaa moom lu muy naan wala. daa am lu muy naan ah, léegi sëñ Maodo léegi loo bëgg a a laaj. sëñ Maodo as. dégg nga dégg lu waral. Mm-hmm. Touba di taw ndakaaru moom di gën a tàng ki du fi taw. waaw ndakaaru bii moom daa ndakaaru boo seetee. jéeg mu traité wala euh, ndakaaru li tax problème am di am ni mhm. day bañ gel buy bañ la day bañ. <laughs> gel buy bañ la léeg-léeg nga gis mu dem ba xiin daa di jékki-jékki naaj. loolu maanaam waa ji day wax ak moom bañ d'accord waaye day jékki-jékki mu génn naaj. yii nag <laughs> oui comme fi nga taxaw bi ne gis nga taxaw bi ni mu lay bëri sagu. de moo tax nii lépp dañ naan gellum euh, bi moom da ngay waar. mais espère. Euh, day dem ba seetaan mu nangu. Euh, ngañ bu yëgee ni kaw ndax nangu nañu waa kii nangu na kii nangu na waa kon nangu naa. léegi ngañ kon fi mu ne temps bi xam temps bi dafa niis nii kon ça veut dire que ñu ngi naxtaan mi ngi bañ a nang. ah ñu ngi ñu ngi koy naxtaane. man loolu du ma ci dugg man du ma sa morom moom ku mu gis ne xeeb la. ah dañuy wax ci waxu nii. léeg-léeg mhm. ñu wéyoo la ko. ngañ bawol bawol temps bi nga am jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu nekkoon ngañ bawol bawol en tan que expert euh, du fi ñëwee rek ñu am mbégte ndax nee na nee na euh, niir yi fi ñuy dajee mu di mu Mauritanie man nag bu Mauritanie bi moom ma jaaxal ndax Mauritanie mi ngi taxaw benn place te xam naa bis bu tawee incha allah loolu mooy indi nag inondation bu mag bi ñu ciy nuyu ñëpp donc ñu nuyu ko El Hadj Mamour Mbaye bat gayol Thiès ah, maa ngi lay fay sukka <laughs> yi maa ngi fi bàyyi ci jàmm mbaay gis gis maa ngi fi nga Thiès ah kenn ah. bu passé déet man maynes bi laay xam ne ñëw nga <laughs> damaa gis dara ñëwut bu ma nee la ñëwoo rek mooy maynes bi ñëwul bàyyi na nga def Omar kii na net waaw ña de waaw ah, ñu ngi lay nuyu soxna si bitti masha allah tey yaa ko kabaw nii ah, yàlla na yàlla def jàmm allahumma amin papa sa yaa ngi lay nuyu kontaan ci yow mbàyyi macha allah. Euh, mbaar euh, waaye danoo yàkkamti. dëgg la mbaay tey mbaa réeroo ndax keroog da nga réer bi ngay ñëwaat. fii ci CTO mm. macha allah waaye xam naa yoon wi. mënoo bàyyi dugg mbuur waaw mbuur. tey ah, mbuur de. an ah, kay da ngaa réer dama ko ferasu. keroog da ngaa réer samedi Boubacar sax mujj di ko di ko wax. moom mooy doomu ndey saa ñëw doomu ndey saa ñëw naa <laughs> bët gër euh, nan nga gisee ni euh, ni noo gisee li nga xam ne rek moom moo di tabaski bi waa a ñëw mm-hmm. waaw en tant que gee gëwël Thiès su kay euh, nit ñi di la xaar mm-hmm. nit ñi ngay toog sa client ci buntu kër gi nit ñi di la mm-hmm. xaar donc kon yow dan nga ciy xaar daal tabaski ak ni mu méttee ni te xar amagul waaw di wax rek maire bi maire Thiès bi xarit la de na na yolamal waay ndaxte daan nañu gis ñoom taala taal sax doonte mu daan joxe moom ay mbate rek nga ci daan mën a jënd <laughs> waaye daal na mën a jënd saakoob soble léegi daal li nga xam ne mu lañ bëgg mhm. mooy sa Thiès bii li fi ne mhm. man dama koy xelal rek budget bi waaw ngir moom mu xam ni mu ngi soog a def première tabaski budget Thiès bi première tabaski bii waaw na seet magum géwél bu mel ni yow xam si yow ni ma mel maandu waaw ah, dëgg la nan ma xamee ci Thiès mu yëkkati alal joojee teg ko ci sama loxo bi mbaay mm-hmm. ma toog ci pénc ma di woote kenn par kenn jënd ay xar su koy wóowul mm-hmm. sa baay ko koy wóolu taxawaay bii nga taxaw rek miiri baa ngay xalaat yóbbu nañ ko CPI. Hmm? barricade Ousmane Sonko ba léegi papa ñu xalaat. dafa am galan boo war a tëgg bu bi am jàmm dégg buñ la papa te ñu xalaat ni jàmm jiikat. voilà ñu xalaat ni jàmm jiikat papa. yaakaar nañu waaw ban galan nga mooy mooy ubbi barricade bi. ak luy indi jàmm ci dëkk bi ak sa xarim Samb mii ñu yóbbu CP. yow looy ñàngal sa papa la suy bu yaa bon. suy bu dama xam fi réew nga may amul lenn loo may laaj déwén ah. mbaay ma toog fi nga naan ab barkat bu sunko lu ci waay waay lu ci sama yoon lay mbaay jàmm laa bëgg dëgg la mbaay ah. luy sama yoon ci barakaatu sunko déedéet pour mu wax jàmm dox ci jàmm jàmm ak bañ jàmm dama ne mbirum sunko ah. ak barkaadam loolu ci sama yoon dëgg la mbaay ah yow sa doom jaay nii. Ah! ma ne sama doom. ne ci dëkk bi di liggéey muy wax ci wàllu sonko. maa ne ko mbirum sonko. bu ci wax dëgg la loolu moom moo ko wax. al parce que lañ jëm maa ngi soog a xam ne ko iñaan nga ko kii criminel. waaw dëgg la waaye yaa ma soxoree waaye. dëgg la noo mujjee préfet. waaw wax la préfet waaw bare nañ ci jàpp waaye. dëgg la. lu ko mooy ma barricade sama. nga barricade sama yéen waa <laughs> war na koo nuyu de wax nga dëgg de te war ngaa nuyu Saliou Samb de. ayca kanam nag dafa dem r dafa dem Sud FM dañ ko invité <laughs> léegi nag mu bëgg a wax ni nag euh, mi euh, man maa ngi man mi maa ngi war faj mu naan leen Sa Ndiogou c'est mon <laughs> ne ko yow tudd nga Sa tudd nga pam mbaay tudd nga ñëpp ba mu des man papa te may sa doom ah yàlla na gudd fan mbaay daane yow sa dund gi mbaay dafa am njariñ ndax da ngay papa ju baax mbaay dundal ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Souka Mbaye Daane yow ak sa gan euh, incha allah ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñu ni bokkaloon plateau bi di remercier waa régie El Hadj Modou ab lay Top Ablaye Diallo Abdou ab Ablaye Diallo voilà ak ñoom Fallou ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier ak logistique bi di leen wax ni suba incha allah Mbaye Daane dina ma wutu ci toog bi man ma jox leen 21h ci émission ataaya ci mercredi bi incha allah dellu alxames incha allah. Agence nationale de la statistique et de la démographie